ru nañ ci quatrième bi c'était à Monastir mais cette fois-ci bu ñu dellowaat Alexandrie on dirait que cette ville égyptienne ne porte pas trop bonheur à la sélection euh, cette fois-ci coachée par Ngagne Desagana Diop finalement ñu éliminer leen tey nag ñu war a toog def li nga xamante ne moom mooy jàngat bi ce ne sera pas loo xamante ne xeex la wala xuloo wala diriger contre telle ou telle personne non non dañ fi ñëw ngir waxtaanee ëllëgu basketball ci wàllu management bi ci wàllu technique naka la ñuy yoree li nga xamante ne cette fois yi mooy base bi. du ñu wax pyramide bi ci kaw parce que l'équipe nationale à un moment nekk ci kaw pyramide bi mais cette fois-ci on de la base de la formation qu'est-ce qu'il faudrait faire pour se projeter am na échéance yu ñëw d'abord pour les garçons en 2025 mais yeneen échéance yu ñëw une équipe boo xamante ne dina am une dimension africaine mais surtout une dimension mondiale ndax peut-être dootuñu suffire ci li nga xamante ne moom mooy Afrique surtout pour le basketball ndax daf ñu yàgg andil ay satisfaction bokk na fii ci Sénégal des disciplines les plus titrées loolu moo waral tey jotaay bi ñu ànd ci nag ak ñoo xamante ne seen xam-xam màcc na ci dama koy tàmbali ak ki nga xamante ne moom mooy Maguette Diop. mu nekkoon ancien directeur technique national ndax ce soir on va parler de formation formation ban type de basketteur la ñuy former ak ban xeetu basket aussi la ñu bëgg jamono ji fi ñu toll en 2023 jëm ci yeneen at yi ñëw ñu bëgg ko yóbbu fi nga xamante ne moom mooy ci différentes compétitions yi wala ci différent parquets yi looloo waral tey invitation am euh, coach ma amaat mbégte ak contenté dalal la ci plateau édition spéciale bi dina bàyyi nga nuyu ak téléspectateurs yi. waaw Adja di la nuyu encore di wax ni effectivement yaa ma woowaat ma ñëw. Mm-hmm. wuyu si la. waaw bu fekkee ni dañuy wax pour defar basket rek man saa mu ci wooyee rek war naa mën a ñëw dëgg la nag moo ko sama jot mayee ak sama kàttan mm-hmm. te dëgg la basket danoo jox satisfaction yu baree bëri ma xam ni comme ni nga ko waxee léegi ci ñi gën a euh, discipline yi gën a titre ci ci Sénégal ci la bokk ba nga xam ne daal ñun ñoo ngi ci liggéey di ci def suñu xalaat di ci wax te duñ ko bàyyi bukk donc may nuyu ñëpp di yaakaar nii li nga yaakaar ci émission bi moo moo def ko ci yàlla na na ma ko yàlla yombalal. Mm-hmm. ba ma mën ko cee def ba nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ngi yaakaar di jële ci dara tamit ñu mën cee am dara loo xam ne dina jëriñ basket bi. yoo xam ne dina jëriñ basket bi pour que basket bi fa mu nekkoon mu nekkaat. amin merci beaucoup jërëjëf coach euh, moom nag euh, mi ngi dend ak koo xamante ne qu'on ne présente plus il s'appelle euh, Joseph Lopez ñu gën ko xam ci Jo Lopez mu nekk ancien international sénégalais double champion d'Afrique mm. donc habilité war a wax ci basket mm. mais surtout continuer di liggéey fa li nga xamante ne moom mooy Sida Academy ci wàllu formation parce que le mot formation va revenir tey ci ci débat bi dinañ si dellu si waat lu bëri euh, champion mën nañ ko wax noonu euh, c'est un plaisir c'est la première fois ma dalal la ci plateau bi mais c'est un plaisir de vous recevoir ma bàyyi la nga nuyu ak téléspectateurs yi. kontaan naa trop euh, merci pour l'invitation hein, d'être à côté de mon ancien coéquipier Maguette Diop, on a joué ensemble à la Chandarc. Mm -hmm. euh, mon jeune frère, je le vois très souvent dans, euh, le milieu du basket. Euh, basket mooy suñu dee ah tey euh, lu xew suñu basket dañ ko war a waxtaan. Mm-hmm. waaw kenn nekku fii pour attaquer nit. Mm-hmm. basket mu ñu boole. Mm-hmm. te tey on est habilité à parler ci afro basket. man je parle. j'ai un parcours de, basket man basket Sénégal moom ma basket. waaw hmm. ah, gendarme j'ai commencé depuis les petites catégories parce que suma grande sœur yi Christiane que je salue au passage. Hmm. Marie Amélie que je salue au passage euh, ñoom ñoo ma yóbbu ci basket. Hmm. j'avais sept ans. ma dem Saint-Michel commencé di dribbler ballon basket et fa laa jógee équipe nationale. à 17 ans. j'étais champion d'Afrique à 18 ans moi. Hmm. donc affaire expérience euh, ay wax la man bëgg naa dugg naa équipe nationale à 18 ans et j'étais pivot titulaire de l'équipe nationale ma toog mu ci banc ma joué. donc euh, Fla dem gagné champion d'Afrique dem Jeux africains d'Alger gagné la seule médaille d'or que le Sénégal ait jamais gagnée aux Jeux africains. après jóge fa États-Unis joué États-Unis et je suis devenu le premier Africain de tous les temps à jouer en première division le premier africain de tous temps. Mm-hmm. donc euh, tey war naa mën a wax ci Afrobasket. Mm-hmm. et. Euh, c'était les années quatre-vingt n'est-ce que yéen seen. fin soixante-dix fin soixante-dix. <laughs> soixante-dix-neuf soixante-dix soixante-dix-neuf. oui oui. <laughs> ça me rajeunit pas quatre-vingt oui. xam ñoo bokkoon jëf-jëf euh, ak pour gagner médaille et champion d'Afrique ñoom euh, Abdourahmane Ndiaye Adidas. Mm-hmm. Mathieu Faye. Magali mm-hmm. Kaba. Mm-hmm. Euh, Adidas que je salue au passage ñoom ñëpp parce que vraiment euh, ils ont beaucoup fait pour le Sénégal et euh, ils sont là au Sénégal et c'est le moment de ñu ñu waxtaan parce que mën nañu indil lu bare ci ci suñu sport. waaw loolu moom je tenais à le dire et finalement euh, je peux pas euh, ne pas saluer mon coach Mamadou Sow qui m'a vraiment mm -hmm. pris depuis le bas âge ba nekk moom moo tax mu nekk lu ma nekk tey mhm. ça je le dis euh, très honnêtement donc en tout cas merci maa ngi nuyu suñu yëpp et on va faire une très belle émission parce qu'on va parler euh, basket mhm. parce que la ñuy waxtaan tey. Mhm. te man loolu laa xam. merci beaucoup jërëjëf. jërëjëf alors euh, maa ngi ak koo xam ne à chaque fois dama koy solliciter bu may def euh, émission euh, muy abu Seye ndax moom. c'est un bel exemple de de reconversion ndax dafa nekkoon joueur nekk basketteur jóge fa aussi continuer di liggéey ci basket ak nag sitam muy basket sénégal point com Euh, c'est l'administrateur Abou euh, c'est tout un plaisir di seq ak yow waxtaan. effectivement Adja maa ngi nuyu plateau bi di mm-hmm. nuyu suñu légende yi toog fii loolu laay parce que ku ne doyen Maguette Diop wax champion Joe Lopez mm-hmm. donc ça résume le basketball parce que ils ont fait tant pour le basket donc plaisir la ma bokk ak ñoom plateau bi tey pour ñu discuter du basketball d'une manière générale comme ni nga ko waxee depuis la formation par l'équipe nationale yaakaar naa ne euh, lépp lu ñu fiy génnee ci débat bi ñu mun a servir ñun les acteurs du basket toute la famille du basket ñu mun ci jëriñoo pour mun aller de l'avant merci beaucoup merci beaucoup Abou bu ko defee dañuy tàmbali li nga xamante ne moom mooy euh, prétexte bi muy élimination des lions euh, ci coupe du monde bi war a am ci été bi euh, fële ca Indonésie Philippines on va revenir aussi parce que c'est sur trois pays où va se dérouler li nga xamante ne moom mooy cette coupe du monde 2023 et au Japon alors mu nekk ay yoo xamante ne on espérait que le Sénégal dina bokk ci cinq ci représentants africains yi war dem foofu dispute euh, booba coupe du monde mais malheureusement ce sont d'autres pays d'autres nations africaines qui vont représenter euh, le continent donc dafay jaadu nag euh, ñu toog waxtaane ko ndax xëy na am na loo xamante ne doxul loolu moom moo andi lu ni lu dama koy tàmbali ak bu coach par rapport au parcours parce que ñu ko yemale rek ci mm. fenêtre bi parce que ñu ko yemalee ci fenêtre bi dañuy réduire li nga xamante ne moom mooy liggéey bi ñu liggéey mm. ndax dafa commencer mm. depuis plusieurs années plusieurs années déjà on note une certaine instabilité au niveau du banc mais balaay loolu par rapport ak fenêtre bi depuis la première fenêtre ou plutôt deuxième fenêtre parce que Sénégal ci la commencé participer ba dernière bi à Alexandrie euh, boo koy jàngat ban jàngat nga si def coach waaw jàngat bi ci mën a def rek mooy fenêtre bi bu nekk dafa ñëw ñu aborder ko mel ni c'est évén événementiel quoi du loo xam ne ko préparé dans le mm-hmm. temps mais fenêtre bu nekk dafa ñëw ak particularité parce que boo dee xool la première fenêtre bi ñu njëkk a joué fii Dakar dafa ñëw entraîneur titulaire bi neexu foon benn euh, euh, Pape Gueye moo ko dirigé woon. parce que Boniface était absent. absent ouais. donc gis nga mu nekk ñu réglé fenêtre boobu ñu joué ko donc on a gis nga ni mu indi on a gagné et on a perdu mm-hmm. loolu ñu jóge ci war nañu deuxième fenêtre bi nga xam ni aussi kii na Boniface effectivement ñëw na deuxième fenêtre bi mais naka la ñu ñëwee aussi mu am ay ay problème problème entraîneur dina ñëw. ñëw na effectivement problème ñoom problème visa joueurs yi dem donc tu as la la deuxième fenêtre ñu ngi ko aborté donc il y a pour la deuxième fenêtre ba nga xam ne bu ñu demee aussi la deuxième fenêtre fële en Égypte gis nga le comportement que que nous avons l'équipe aussi à la balle abordée ñu donc muy encore des matchs qu'on a perdu et des matchs qu'on devait gagner match xam ne da ko waroon gagner pour mën a bokk parce que ñaari match yooyu ñu ñu perdre surtout contre Congo bi ñu ko du ñu perdre fii Sénégal ba pare perdre ko fële c'est des matchs qu'il fallait pas perdre. waaw donc loolu yëpp te loolu yëpp ci man je dis que peut-être ñu ngi ko aborder ñu préparer fenêtre boobu kooku war nañ mën nañ cee ñëwaat. c'est-à-dire sur oh. six matchs. Oh. on en a perdu trois. waaw oh, voilà yoo xam ne. parce que on a perdu une. waaw d'accord mais contre. une rencontre fii à Dakar. et deux contre Égypte sax ma d'accord naa ne peut-être c'était mënoon na wax mais perdre contre fii au Sénégal. perdre ko encore fële donc euh, euh, wala donc on a c'est des matchs qu'il fallait pas perdre donc loolu ñu ñëw ci dans la deuxième fenêtre troisième fenêtre bi ñëw donc entraîneur on change encore d'entraîneur donc mu am un changement d'entraîneur bon fédération xam nga waaw wax expliqué nañu pourquoi c'est ce qui s'est passé beneen entraîneur ñëwaat bu kii ñëw de sa gën a ñëw yóbbu euh, dama dama yóbbu kii du loolu ah. Mm-hmm. waaw bu ñu demee. vous avez vu effectivement c'est une finale boo xam ne baaxoon na on avait vraiment ni on a gagné tous nos trois matchs mm-hmm. ah, donc vraiment loolu donc parce que on avait tous nos joueurs ñëpp ngi fi woon équipe matoon na ñu gagné maintenant il restait la dernière fenêtre de de qualification kii ñëpp xamoon nañ fenêtre boobu d'abord am na certains joueurs yoo xam ne du du ñëw xam da nga koy xam parce que Sénégal sax li mu bëggoon sax mooy organiser ko au moins pour mën a Euh, gën a motiver équipe bi gën a yor équipe donc muy la la dernière fenêtre mu am absence certains joueurs te yoo xam ne joueurs yi kii la donc muy tel góor gi Sy Dieng tel que Faye mhm. ñi nga xam ne dafa Ibrahima Fall Faye waaw donc ñooñu ay joueurs yu amoon importance ci dispositif kii la donc fenêtre boobu ñëw ñu joué mooy bi ñu mujjee joué nii mais ñëpp gis nañu comment ça s'est passé kon mënoo waxee rek chaque fenêtre bu ñëw dafay ñëw ak boobu côté spécifique fenêtre yi bokkul même entraîneur les entraîneurs qui changent certainement joueurs yi absenté fii yi ñëw fii donc voilà le problème problème bi mooy éliminatoire yi on n'a pas toujours les mêmes joueurs ci fenêtre yëpp amuñu ko on n'a pas toujours les mêmes entraîneurs ah par ñetti entraîneur bu nekk ku nekk yoroon na benn fenêtre donc loolu dafay rendre suñu équipe mu instable donc loolu may doole équipe bi ni mu ko waroon may wala may doole. d'accord donc man je trouve que. Mhm. lu ci lu lu lu gën a wàññi suñu force. mooy c'est cette instabilité là. Oh, c'est oh, cette instabilité là. d'accord ah, ah. alors euh, José Senghor <laughs> José Lopez. Lopez. ma ne José Senghor je m'excuse. Euh, euh, je Lopez pour vous. ban jàngat nga def depuis deuxième fenêtre bi suñu participation fi Dakar Arena wala dernière fële Alexandrie bon pour euh, wax de sama collègue Maguette wax il a peut-être touché un peu au vif du sujet c'est le manque de planification parce que soo commencé jouer ay fenêtres éliminatoires il faut avoir un processus en place qui te permet de jouer avec ce que tu as xam nga tey Sénégal mënuñu dépendre totalement sur nos expatriés parce qu'ils jouent dans des profs, euh, dans des ligues où ils ne sont pas disponibles à certaines époques et pour dire que jour bi ñëwul que la ñëwul moom moo tax ñu perdre moi en tant qu'ancien basketteur euh, ça m'indigne un peu parce que je dis que euh, on doit pouvoir avoir des joueurs locaux oui pour euh, pour pouvoir euh, aborder ces phases éliminatoires. Mm Parce que tey euh, l'ossature de notre équipe nationale est composée d'expatriés. C'est pas normal. Et avec ça, on aura des difficultés à gagner. Toutes les équipes qui gagnent en Afrique ont des, des ossatures locales, muy Égypte, muy Tunisie muy Angola euh, il faut comprendre que le basket se fait à la base au niveau local les gosses qui à l'étranger euh, si on a si on peut les recevoir on les reçoit euh, on les reçoit mais si c'est pas possible nañ leen bàyyi nañu ju gëm si suñu joueur locaux yi pour ñu def lu ñu war a def lu xew Égypte moo tax ñu toog fii tey parce que Sénégal dafa yàgg am ndam ci basket waaw te man mënuma toog en tant que ancien basketteur ñu may wax que ah oui kontaan nañu parce que on a pu deuxième dans un tournoi def nañu fii on a été vice champion c'est pas acceptable <laughs> pour man et pour pour ñu bari ñu bokkal génération c'est pas acceptable mu ñu tey pour moi deuxième c'est une c'est une euh, c'est une failure c'est ça c'est anglais c'est c'est euh, c'est un échec deuxième c'est un échec pour un pays en Afrique il sont qui sont les plus euh, les plus titrés en Afrique c'est l'Angola qui a gagné onze le Sénégal avec cinq l'Égypte avec cinq donc on fait partie des trois meilleures équipes en on le problème c'est pas seulement les fenêtres hein. il la euh, la ligne pourquoi c'est là où se trouve le débat aujourd'hui mais malheureusement euh, moi comme je dis je suis indigné par notre prestation euh, ces dernières années au niveau euh, de l'équipe nationale et il faut qu'on s'asseye et qu'on s'asseye et qu'on fasse des états généraux et parler avoir des Maguette Diop à la table avoir des Abdourahmane Ndiaye à la table euh, des Jo Lopez des Mathieu Faye il y a des gens qui peuvent apporter quelque chose au basket on n'est pas là pour prendre des positions moi on peut mettre n'importe qui à la tête de la fédération ça Euh, ça me dérange pas mais ils doivent être en mesure de pouvoir écouter les gens parce que gënuñu ñu xam basket gënuñu ñu xam basket je le répète les gens qui dirigent le basket aujourd'hui ne sont pas plus compétents que nous en matière de basket. kon yow dégluwuñ la. non moi euh, euh, on m'a pas appelé on m'a pas convaincu on m'a pas demandé de de donner mon opinion mais j'ai une opinion man xam comment gérer une structure de basket on le fait à CID on le fait à la NBA Aujourd'hui, les meilleurs basketteurs du Sénégal se trouvent dans notre établissement à Sid et dans la NBA Academy. mais est-ce que dem nga ci ñoom. non dem ci ñoom parce que euh, moi j'ai l'impression que les gens ils nous évitent parce que euh, ils ne veulent pas entendre nos euh, nos opinions moi je suis pas un béni-boubou man si tu m'appelles dans une euh, pour waxtaan naa la wax lu ma xalaat je le dirai respectueusement mais di ma dégg. D'accord. Si on voulait dégâts, je prends mes bagages et, et je m'en sans aucun problème. D'accord. Dinañ ñëw ci cadre boobu ngay junju peut-être jël ñoo xamante ne c'était d'anciens joueurs de haut niveau. Mhm. ñu ñëw. encadrer direction technique bi di joxe li nga xamante ne moom mooy seen contribution encadrer aussi ñi nga xamante ne ñoom ñooy nos différents sélectionneurs bu ko defee gën leen jàppale ci li nga xamante ne moom mooy liggéey bi mais balaay loolu on va tirer d'abord li nga xamante ne moom mooy bilan fenêtre bi parce que yow yàgg nga di suivre compétition équipe nationale surtout l'équipe nationale masculine fekkee nga fenêtre yu bëri boo ci jàngat booy def ban jàngat lay nekk am on dans un premier temps je vais un peu toucher si li doyen wax euh, côté instabilité bi ñuy am surtout au niveau des équipes nationales bu ñuy aborder fenêtres yi li mu wax c'est quelque chose boo xam ne c'est c'est réel euh, chaque fenêtre il y a des réalités et chaque fois on note une certaine instabilité soit au, au niveau du banc soit au niveau de l'effectif parce que si on avait la chance d'avoir le même noyau qui dispute les fenêtres le même noyau, peut-être on y ajoute quelques joueurs. Là, on n'aurait pas eu cette difficulté. Mais bon, la plupart de nos joueurs sont des expatriés, comme Nico euh, Grand Jour Lopez Waré. Et si on se base sur nos expatriés pour l'équipe nationale, à un moment donné, s'ils ne sont pas disponibles, on sera obligé de voir l'anmofides pour Dieu. Alors que, et là, c'est le moment, peut-être, pourquoi pas de relancer nos sélections locales. relancer les sélections locales avoir avoir avoir un noyau une base locale d'abord parce que tamit neexul mais la plupart des nations africaines yi ngay gis nii ils ont une base locale aussi une zone une base locale boo xam ne ils sont en jambes dañ leen di permettre ñuy compétir di jouer des mini tournois peut-être de jouer des éliminatoires avant on avait cette possibilité temps yi ñuy jouer tournoi zone de yi la plupart du temps c'était non c'était presque une équipe à base locale qui allait jouer les tournois des zones 2. Mm -hmm. Donc quand nos expatriés n'étaient pas disponibles, mhm. automatiquement, on, on prenait les jours du championnat local. Pourquoi ne pas penser à relancer cela pour éviter ces problèmes avec l'équipe nationale nga xam ne tout le temps on pioche au niveau du basket local pour compléter l'équipe nationale instabilité boobu dinañ ko régler te dootuñu parce que chaque fois instabilité bi su amee rek ça nous porte préjudice soo xoolee on a des joueurs qui manquent il y un problème au niveau de l'effectif on va on perd des matchs comme ni mu ko waxee des matchs qu'on ne devait pas perdre alors que si l'effectif si on a un effectif boo xam ne ils sont rodés tàmm nañ ko il faut il faut que ñu commencer tàmmal suñu joueurs locaux yi compétition international loolu moo leen manqué loolu suñ ko amee euh, on on ne va plus parler de ce problème d'effectif de joueurs qui manquent deux mois à l'avant ñu naan no ki dafa nar manqué on sait ñan ñan ñoo koy remplacer jeex na et on continue. parce que c'est ça actuellement dont on a besoin donc c'est le moment ñu relancer tuuti la touche locale xam nga euh, daaw j'ai vu une initiative de la direction technique euh, mm-hmm. avec l'équipe l'équipe féminine ouais. on a rassemblé des joueuses locales et mm-hmm. quelques joueuses expatriées Patrie. qui étaient en vacances mm-hmm. pendant trois semaines de camp dañ perpétrer loolu loolu si on arrive à le ko def aussi bien chez les hommes et chez on aura une base sur laquelle dinañ ci appuyer wu au cas où les expatriés ne sont pas disponibles. d'accord donc foofu problème équipe nationale dootul am. Mhm. donc loolu la ñuy loolu la ñuy xalaat quoi. d'accord mhm. alors Abou ñu ngi ñëwaat ba léegi ci débat bi mais balaa balaay euh, ñuy continuer euh, Penda on s'est entretenu dimanche soir juste après le dernier match des Lions c'était face au Cameroun ak euh, le sélectionneur Ngagne Desagana depuis Alexandrie ñu teewlu ko suñu paree dellu si waat continuer waxtaan bi. bu tournoi bi man feuille positive la ñu jëlee début premier match contre euh, Soudan on a bien joué pour la troisième quart-temps on menait on est mené après ñoom ñu après euh, mu jéeg match bi mais deuxième machine man moom mu gën a métti defet parce que je pense que Tunisie mënuñu quoi mais Espagne feeñ foofu parce que ba troisième quart bi match a tey serré ba ñoom seen ak ñoo def différence bi en troisième quatrième bi jeex numéro de onze points après da nga gis ne ci jeunes yi manque d'espoir dafa feeñ dañ ñoom jël ay tir yu gaaw aussi lañ commencé def défense agressive si grand pont ñu am ay turnovers ñu dugal si aussi lañ ubbi match bi match Cameroun on a très bien joué je suis vraiment fier des jeunes parce que c'était pas évident ah après match bi démb nu ma gisee jour si BCR yi xam nga c'était triste te ñëw nañ tey joué match bu baax ah très bon match ñëpp ah ñëpp ñëw ñax lay joué match bu baax yàlla daf ñu gagné match bi surtout les jeunes ah comme jeune comme Babacar Sané nga xamante ne joué lu moo ko contre euh, Tunisie parce que affaire expérience laa doon xalaat quoi bu match yooyu moom expérience mais aujourd'hui m'a montré que la grandi yéen bu baax. Ah, mais nii la yàlla dogaloon ah ñu bi ñu ñëw fii victoire victoire victoire bi ci bëggoon mais yàlla nii la ko bëggee woon on a gagné un seul match. deux matchs difficiles surtout sur Soudan sur une équipe très bonne équipe ah très bonne équipe. mën a wane moom lu soog commencé quoi waaw liggéey si lay commencé surtout vacances yi commencé def ak jeunes yi et puis Coupe d'Afrique voilà préparé wu jëm ci Coupe d'Afrique bi mais naka parce que ñu continuer tiré ba léegi li nga xamante ne moom mooy leçon yi wala enseignement yi ci li nga xamante ne moom mooy cette défaite la cette élimination des Lions ki nga xamante ne moom mooy Vieux Ndoye international sénégalais moom aussi s'est entretenu avec Grégoire Samba Ngom ñu teewlu ko soog a ñëw na continuer li nga xam ne moom mooy waxtaan bi. Sénégalais yëpp dañ yaakaaroon na ni waroon nañu mën qualifier te amoon nañ sax chance su qualifier waaye demeewul mujjeewul demee noonu parce que boo xoolee ñun suñu équipe bi dafa bari woon tamit ay xale te match yu ñu doon joué ay. joueurs yu expérimenté ñoo xam ne ne yàgg nañ ci basket bi am nañ ci xam-xam bu bari ñoom lañ tasal comme Tunisie te boo xoolee Tunisie. daanaka match bi ñu ko gagné mooy seen mag yi benn rom daanaka américain bi naturalisé trop donc xam nga yooyu euh, xale yi pour ñu mën a topp leen ci rythme boobu dafay laajte xam-xam bu bëri euh, vécu bu bari ci ci ci ci basket bi et c'est c'est dommage donc di leen di wax ne leen bu ñu découragé euh, ay xale lañ defe na leen lu bari nañu góorgóorlu et puis gëm naa ne lii di ñëw mooy tax mais il faudra que ñu xoolaat Euh, équipe nationale bi nan lay demee. voilà mu doon gis-gisu ancien international bi di Viendoy waaye ñaari moom moom a ci gën a frappé ñoom ñaar ñëpp ils ont parlé d'expérience par rapport à la composition du groupe le dernier mot revient à l'entraîneur sa Sagana mm. le dernier choix aussi lui revient mm. mais aussi mun nañu xool jàngat xëy na loo xamante ne day gën a jëmale groupe bi par rapport ak parce que benn moment dañ fi commencé woon benn débat man je me demande est-ce que débat boobu bokk na ci lu plombé basket bi muy ñu rajeunir li nga xamante ne effectif yi est-ce que si on voit les performances de certaines sélections comme la Tunisie comme la Côte d'Ivoire avec Solo Diabaté ak ñooñu est-ce que débat boobu amoon na sa raison d'être euh, coach. oh mais rajeunissement équipe dina ko wax mais man damay wax nii joueur moom mooy toog ñu xam ne kii mënatul ñu war a wax ne màgget na maanaam màgget na joueur bi mënatul donc si le joueur continue à être performant kooku da ko war a jox chance am toujours rajoutement sa équipe tamit dafa am noo koy defee aussi doo ñëw di ko def peut-être ak kii da ngay dem nànk nànk nànk nànk ngay def nga koy def mais loolu nag gis que boo bëggee dégg-dégg ajabité gis nga équipe bi loolu moo am rajeunissement ngay jël kii entraîneur moo koy def mais entraîneur il faut travailler dans mu am longévité foofu du doo ñëw tey rek benn fenêtre nga ne damay benn fenêtre bi lay lay rajeunir non entraîneur bi dafa war a nekk ci équipe bi xam équipe bi yàggal toute équipe liggéey dans le temps mais kooku bu ko bëggee pas ñu foo ñu bàyyi ñu jël sous forme de pige loolu man on a problème la entraîneur bi dina koy jël rek fenêtre bi ou bien championnat d'Afrique bi sous forme de pige mu ñëw alors que entraîneur boo ko jëloon comme mais football ils ont réglé ce problème. kon mais entraîneur bi da nga ko jël di ko fay. donc le basket doit arriver à ce niveau boo xam ni da koy jël par temps plein. mais la fédération peut vous rétorquer que. Euh, xaalis amul. waaw mais mais mais nag xaalis dañ dafa war a am nag pour pourquoi xaalis am ci football bi te amu ci basket te basket bi mu ëpp ay titres. ki kan fay ji bi c' est l' état qui paye. oui mais état defar ko football bi du ko defar basket bi non danoo war a fay entraîneur basket boo ko fayal gis nga aujourd'hui bu fekkoon am na entraîneur boo xam ni par exemple je prends quelques questions je prends exemple entraîneur bu fa nekk ngañ de Sagana Diop. nga fay ko mu toog du bàyyi du di li boo ko fayal ko jar. mu toog fii dina jël temps dina mën du ko di liggéey comme ni ko kii doon waxee def ay temps te xool joueurs yi nekk fii dem xool joueurs yi nekk. donc chaque week-end mu dem Malick Ndiaye xool waaw jël ay kii waxu boo neexee mu dem extérieur di nekk durant tout son temps muy teg ci équipe boobu ni muy demee. c'est ce que Aliou Cissé faisait d'ailleurs tout son temps mu ngi ci équipe am équipe moo ko ñor donc bu bu match amee bu compétition amee dafay ñëw rek dérouler. en ce moment là di nga mais entraîneur boo xam ni day ñëw day nekk fële un moment tey en une semaine ngeen ko ñëwal mais du xam équipe am liggéeyal lu ci waral mais quand quand tu vois le cas de li ko mën a joxe le cas de euh, euh, Babacar Sané. ah donc un match toog na beneen match mu ñëw def def 30 points donc loolu quand tu vois l'équipe jouer nga xam ne effectivement l'entraîneur am on nous avons des entraîneurs ñi fi jaar yëpp ils compétents mën nañoo yore seen équipe mais il faut mu am entraîneur yoo xam ne foo ñu bàyyi pige ma je trouve que man loolu yàgg na ko man ko toujours entraîneur bi du am entraîneur yu stable ñu am équipe loolu moom ci euh, alors euh, ah. euh, Joseph Lopez ah, ah, foofu dafay nekk par de responsabilité de euh, entité d'abord il y a l'État du Sénégal mais aussi il y la fédération naka lañ mun a def parce que aussi jar na ko munu am benn discipline bu mel ne basketball ak lépp lim la mun a valoiral nga ne doo ci investir. je je rigole un peu parce que euh, ce que Maguette dit c'est à peu près euh, dans ce que je vais me mettre mais un peu plus approfondi. Mm. parce que le problème du basket sénégalais c'est l'amateurisme. Mm. oui à tous les niveaux. On a un président de fédération qui n'est pas payé. On a des secrétaires généraux qui ne sont pas payés. Ils font des travaux. Dañuy liggéey chaque jour. wàcc dem xalaat basket. On ne peut pas réussir comme ça. Il faut mettre une, un dispositif en place tey foo xam ne nit dañuy fayeku. xëy gontu dem liggéey pour fédération pour basket. au niveau fédéral comme au niveau des entraîneurs. loolu tant que amuñu ko on va toujours euh, avoir ces débats là parce que aujourd'hui et puis. une autre chose on a des locaux fédération parce que dafa war am un édifice les gradins de de Marius Ndiaye là c'était de mon temps on parle de presque cinquante ans aujourd'hui mais c'est honteux mm. et mu am siège mu am siège mm. et aujourd'hui les autorités étatiques ne sont pas bien informées on dit que les gens ont peur de dire aux, aux gens qui ont de l'argent lu xew mais je ne pense pas que soo toogee avec les autorités étatiques nga wax leen hey nous avons besoin de ça ça ça et vous parlez du palmarès du basket. Mm. qui est beaucoup plus élogieux que celui de du football le football a gagné benn CAN. et on croit on, on est fier de ça hein mais euh, le Sénégal su mu gañulee Coupe d'Afrique mu ngi ay final. Mm-hmm. donc aujourd'hui euh, tant qu'on est dans cet esprit de bénévolat on va pas s'en sortir. ce que Maguette a dit ce qui est pertinent. soit les entraîneurs étrangers ou sénégalais qui, qui vivent à l'étranger qu'on amène au Sénégal ils doivent avoir un programme c'est-à-dire balaa ñu jógee Sénégal dañu war a teg programme pour par exemple Pape Gueye qui est l'assistant mm. ne que lii laa bëgg nga def liggéey chaque def regroupement deux fois dans la semaine les gosses se retrouvent à Demba ils travaillent sur les tirs sur les dribbles sur les rebonds et, commencer à avoir une cohésion d'équipe Parce que nous, ce qu'on a aujourd'hui, c'est une sélection. Mm. Et nos joueurs ne sont pas assez forts pour pouvoir venir dominer en Afrique. Les, Américains le font parce qu'ils sont tellement au-dessus au des autres, mais quand ils viennent, ils jouent avec, leur talent. Et puis ils championnat très relevé, meilleur, meilleur, championnat. Mais à Dakar, avec tout le respect que j'ai pour tout le monde qui, il est faible. Mm. Parce que c'est pour cela qu'on n'a pas Babacar Sané c'est un gosse que nous nous avons recruté à, à Sid après il s'est retrouvé à la NBA. Ah, oui. Moi je l'ai vu il y a deux dimanches dans le All-Star de G League à, à Salt Lake a été l'un des quand je l'ai vu sur le banc de touche je me dis qu'est-ce qui se passe hmm. donc euh, euh, mon jeune frère Ngagne je sais pas euh, xalaat mais un gosse comme Babacar Sané c'est connu qu'il est extraordinaire nous on l'a vu jouer nous on sait ce qu'il est capable on a beaucoup de jeunes comme ça mais maintenant il faut que comme disait Maguette que les gosses que les entraîneurs qui vont entraîner l'équipe soit ñu nekk Dakar comme ñëpp et on les paye des salaires respectables ou bien tu as euh, un assistant que tu donnes des instructions bien spécifiques sur ce que tu veux travailler sur le profil des joueurs mais xam nga aujourd'hui le basket a, a tellement évolué parce que tout le monde tu peux faire mètre mètres dix tu fais cent kilos un autre fait deux mètres cent vingt kilos mais il faut il faut chercher des profils. Babacar Sari, nous, on l'a cherché à Binjona. On a dit ça, c'est un profil dont on a besoin. pour le Sénégal. d'accord pour le lu ngeen soxla ci basketu Sénégal. on va à Kédougou parce que tu sais au Sénégal il a des gens qui ont des, morphologies différentes. Mm. soo demee Bignona di nga gis ay des gosses qui sont bien portants parce que c'est leur c'est leur alimentation à Kédougou tu vas avoir de, très grands athlètes tu viens plus vers le Sahel vers le nord. non sont plus minces parce que dañuy dañuy waxaale ci type de basketball bi ñu bëgg a développer. pour reconquérir li nga ban ba ngay soxla euh, ak peut-être pivot ngay soxla ailier fort wala lan lan ngay soxla exactement boo demee côté Kédougou quand je vais dans ces zones je, je suis ébahi au au au potentiel de ces joueurs tu vois des gosses qui marchent presque pieds nus des mollets extraordinaires mais formation basketteur tu vas avoir des LeBron James

il n'a même pas 25 ans. Mhm. Giannis Antetokounmpo qui est le Nigérian grec. Ben. Il a ans. Le seul vieillard c'est Le James. Tous les autres sont, des jeunes. Mhm. Donc cette histoire d'expérience. Aujourd'hui le basket a évolué les gosses sont plus athlétiques que nous de notre temps. Ça il faut il faut qu'on le reconnaisse. C'est des athlètes ces aujourd'hui. Et il, suffit de mettre un système en place qui les permette d'exprimer où vous allez voir des choses extraordinaires. Euh, mais pourquoi on retarde dans les petits discours de euh, que moi dans la télévision locale moi, moi je dis ça, moi ça me d'accord vous, vous, n'êtes pas d'accord euh, mais Abou da nga da ñëwaale parce que quand on parle d'expérience vier mi ngi ko doon wax ci plateau sport sur 7 dañ dañ koy boolewaale par rapport ak conditions yi ñu war a mettre aussi suñuy suñuy surtout parce que football bi bi ñu koy njëkk a commencé dañ ko commencé par équipe nationale A parce que mënoon nañ comme par exemple équipe nationale masculine bi ak féminine bi utal leen li nga xamante ne moom mooy salaire bu état bi di di fay comme peut-être ni ñu ko réussir ci football bi après au fur et à mesure être bu basket bi di gën a dox rentrée d'argent di gën a am les autres sélections aussi ñu boole leen ci di leen di di leen fay comme finalement léegi football bi ni mu ni ni mu def mais loolu yëpp buñ ko buñ ko boole boolewaale ak expérience bi ndax vieux dafa wax lu am solo nee na ku ci mel ni ay Maurice Ndour d'autres joueurs ñu ngi fi ils sont toujours en activité ñu ngi jouer ci seen championnat pourquoi ñu jikki-jikki rek génne leen gisatuñ leen sélection A effectivement comme ni nga ko waxee il y beaucoup de joueurs qui sont là euh, dans la diaspora ñu ngi ñu ngi ñi ngi ñi ngi nekk en jambe ba léegi ñi ngi compétir Euh, mais xam nga entraîneur yi en mooy li mooy li ñu doon wax sànq le l'instabilité au niveau des bancs xam nga staff bu ñëw effectif bu ñëw andi ay joueurs yu bees xam nga tout le temps day andi instabilité day am ay joueurs yu ñuy laissé en rade am na joueurs yu bees yu ñëw te loolu du arranger équipe nationale encore une fois je le dis euh, am noyau bu dur bu yàgg mooy avantage yu équipe nationale mais si tout le temps on change le staff on on rajoute de nouveau jour donc chaque fois on se dit on a amené un nouveau jeune mais on a laissé des trentenaires qui sont encore compétitifs. Et tout le temps, on sera dans cet éternel recommencement. Et on se posera les mêmes questions à chaque fois. kii lu tax joué wul kii lu tax ñu tax ñu andi jeune bi lu tax owuñu kële kële il est beaucoup plus expérimenté alors que si cette question on l'avait réglée dès le départ en ayant benn noyau boo xam ne daf ñuy leer ne on va construire notre projet autour de ce noyau. Mm-hmm. là ces questions-là les plus exister. parce que à chaque fois qu'on parle de l'équipe nationale il y a un noyau boo xam ne on sait que là actuellement période bi ñu toll nii noyau baa ngi maintenant au fur e à mesure qu'on avance avec un projet on y rajoute les meilleurs éléments et c'est comme ça qu'on construit une bonne équipe en ayant une base locale aussi. parce que maa ngi dégg réaction coach de Sagana bi muy wax léegi mi ngi naan liggéey baa ngi soog commencé. léegi espérons. ñu bàyyi ko liggéey bi mu bugg def. mu def ko parce que. il a une am na benn complicité ak jeunes yi mu jeunes yi mu jël nii moom tout le temps il le dit. même pendant les séances d'entraînement sax tu le sens am na benn complicité bu mu am ak jeunes yu bees yi. léegi basketball ak performance temps la laaj. ak liggéey il faut que ñu ñu léegi ñu orienté wu ci projet pa fenêtre wala édition afrobasket il faut que ñu dépasser stade boobu fenêtre de qualification édition afrobasket par deux ans comme ni ko doyen waxee léegi entraîneur bi ñëw def pige c'est l'entraîneur bu ñëwee pige il n'a pas le temps de faire des tests ou de sélectionner joueurs yi mu yàgg xam lay jël mm-hmm. moo tax soo xoolee depuis presque dix ans entraîneurs yi fi jaar yëpp. Mhm. même chose la ñuy doxalee. alors que si on avait la possibilité d'avoir un projet pour un entraîneur nga xam ne pendant deux trois ans il va travailler sur le même projet il y a des questions qu'on ne va plus se poser parce que basket bi ah ak nu mun munti demee am na am na lenn loo xam ne yàlla moo ñu ko may ñun. Euh, yàlla may nañu tout le temps même si on est en train de reconstruire on peut mettre quelque chose boo xam ne on peut même arriver en en quart de finale parce que tout le temps on a des jeunes qui sont là mais loolu du nekk loo xam ne day nekk day day nekk luy yàgg on peut réussir le coup on peut échouer mais alors que bu ñu tegee projet comme la plupart ay Rwanda ay Sud-Soudan ils l'ont fait oui. ils sont en train de réussir, donc c'est le projet qui peut assurer un avenir certain d'accord alors ci projet boobu bokk na ci li nga xamante ne cette fois-ci moom mooy management parce que gis nañ dégagé nañ part de responsabilité de l'État cette fois-ci lan moo ci part de euh, part de responsabilité de la Fédération sénégalaise de basketball par rapport d'abord à la préparation par rapport ak cette instabilité ci banc bi parce que bu ñu bu ñu xoolee délai bu gàtt rek depuis 2019 diggante Abdourahmane Ndiaye Adidas ak léegi y' a combien de sélectionneurs ñoom la ñu jox baaw gaynde yu góor yi rek la ñu wax jigéen ñi après dinañ si dinañ si ñëw. et surtout l' des campagnes parce que sànq abu mi ngi koy wax maanaam on cherche des solutions conjoncturelles mais jamais. des solutions structurelles te c'est là où on doit aller c'est-à-dire football bi ñuy kañ ni sax loolu ci loolu ci dynamique boobu la ñu nekk c'est pour cela ko commence à voir des des des des résultats maintenant comment faire parce que même dernière fenêtre bi n'est-ce pas ils avaient dix jours bu fekkee ne juum naa aussi ngeen rectifier ma. février bi mais avant est-ce que ñu woon daje. comme on avait fait parce que euh, quatrième fenêtre bi réussite bi mooy de Sagana avec son groupe ici mais c'était les vacances. Voilà, ils se sont préparés ils ont disputé deux rencontres amicales fii ils ont disputé aussi une autre rencontre amicale avec euh, avec l'Égypte donc l'équipe s'est s'est préparée Desagana avait une lecture globale de son de son effectif mais cette fois-ci ñoom ñëpp dañu àndandoo ils se sont retrouvés à Alexandrie entraîné wu trois jours quatre jours mais euh, il faut pas espérer un miracle parce que sport aussi dafa dafa dafa logique dafa juste hmm. coach waaw mais li nga wax dëgg xam nga fa nekk dafa am loolooy inconvénient fenêtre parce que di nga am fenêtre yoo xam ni dalay arrangé parce que day nekk pendant les te dafa yoo xam tes joueurs sont libres l'entraîneur libre ñëpp ñëpp sont libres di nga mën am temps pour ñëw dajaleel fii ñu préparé wu nga ànd ñoom comme fenêtre bi ñu joué à Tunis à Bougaou ma amoon na tuuti jot joueurs yëpp nga fi woon ñu waaw waaw ñu def waaw un mois de préparation donc loolu mais pour mais parce que amuñu ko dix jours. ko am parce que aussi fenêtre bi. da nga ko def bon soo xoolee. c'est entre le fait que les joueurs quittent leur club rejoignent l'équipe nationale. joueurs yi vont jouer et rentrer en club. quand les les joueurs souvent dans dans ces fenêtres là les gens jouent samedi dimanche. Mm-hmm. mais joueurs yi nga leen bàyyi ñu ñu seen club. weekend boobu ba samedi ba dimanche souvent mu ñu ñoo xam ne dañoo joué daanoo joué ba samedi ba dimanche kii me disait que euh, Boy Babacar Sané avait joué le dimanche. Mm-hmm. waaw waaw a été le ah. waaw voilà oui parce que période boobu la leen libéré. libération bi pour ñeneen nekk dans les clubs dans les clubs européens yooyu ñooñu noonu la ñoom Branco ñooñu ñëpp seen club dañ leen bàyyi bu ñu paree nga xam ñu am lundi mardi mercredi seen boobu la am 3 jours 4 jours d' soog ko wala soog maintenant quel doit être liggéeyu pas seulement la fédération parce que dañuy dañuy dañuy situer pas de responsabilité de la fédération mais au-delà de FIBA Afrique de FIBA monde. parce que am na ci combat yoo xamante ne fédération kese mënu ko mëne euh, benn parenthèse rek la parce que je vais poser la question au président ma ne ko pourquoi vous acceptez que ñuy parce que tous les quatre ans. Mm. pourquoi on peut pas l'organiser tous les tous les deux ans ni ñu ni ñu defoon surtout afrobasket masculin bi donc dafa am combat yoo xamante ne euh, les fédérations africaines dañ ko dañ ko war a mener aussi oui mais ça c'est vrai que effectivement euh, di organiser coupe d'Afrique tous les deux ans handicap la pour développement basket football euh, africain. mais par rapport aux euh, fenêtres c'est-à-dire ñu permettre leen les équipes africaines au moins ñu mun a am quelques jours yoo xamante ne dinañu mun a dajala pour mun a dem ci seen fenêtre xam nga fenêtre yi c'est c'est pas africain mais c'est au niveau mondial oui tu as vu à travers euh, le monde toutes les équipes jouent mm-hmm. mais non donc nag maintenant dafa am lu équipe yoo xam ni seen i joueurs mën na noonu wu ñu mën a jouer mais am na ñoo xam ni dans ces fenêtres là par exemple les joueurs NBA duñu libéré. non c'est exclu waaw c'est exclu. et de l'Euroleague aussi voilà. mais mais nag loolu nag euh, je pense que lool loolu taxoon euh, euh, Sénégal bu dee jël fenêtre sax des fois day jël fenêtre boo xam ni day day yaakaar dina mën a kii par exemple fenêtre mois de juillet bu nu arrangé la mais yeneen fenêtre yi du nu arrangé trop. d'accord alors Joe Lopez lan nga ñu ci mun a yokkal c'est-à-dire mu nekk loo xamante ne ça va permettre aux différentes sélections africaines de pouvoir travailler parce que comme on dit équipe nationale ñi pare ñoom la ñuy sélectionner mais aussi celui qui travaille a besoin de quelque chose boo xamante ne mun na ci mun na ci mun na ci teg loxoom par rapport à par rapport à la préparation des différentes compétitions oui mais ça xam naa loolu euh, FIBA xalaat na ko. loolu y a des y a des zones Sénégal fait partie de la zone de 2 oui. waaw et d'ailleurs j'ai appris aujourd'hui que c'est le Sénégal qui dirige cette zone. depuis qu'on est à la tête de cette zone on n'a pas organisé une compétition moi qui vous parle j'ai joué dans plusieurs zones 2. Euh, dem naa fi Mali dem naa fi ay Guinée pour jouer en tant que jeune en équipe nationale pour que le Sénégal se qualifie on a toujours gagné. donc aujourd'hui ce problème-là, il a été adressé par la FIBA. Donc maintenant, c'est à nos autorités d'organiser de, de, des, des, des, tournois de zone 2, parce que les zones 2, c'est, je crois, c'est le Cap Vert, le Sénégal, le, le la Guinée-Bissau, le Mali, Mali. Mali. et la Mauritanie. Oui. Mais ouais. l'affaire de, de, trucs euh, qu'on qu fait face aujourd'hui, c'est une question d'organisation. Moi, je trouve que on doit s'asseoir avec la fédération et parler de l'organisation de l'organisation, euh, euh, organisationnelle. Ensuite, le problème de structure. Aujourd'hui, les, les autorités fédérales du basket dañu war mun toog ak seen boss yi seen patron yi mm-hmm. wax leen on a besoin de construire des, des terrains dans les régions oui on a dépassé des milliards pour Dakar Arena on joue même pas Dakar Arena si on a ces mêmes milliards jël un milliard dugal ko dans les quatorze régions c'est quatorze milliards on, on pourrait faire des salles de deux cent personnes et c'est comme ça qu'on développe le sport le basket peut-être vous peut-être euh, mais vous l'ignorez c'est un sport de salle mhm. on joue pas ci benn dëkk qui se dit un pays de basket où les gens jouent dehors c'est un jeu de salle qu'il pleuve qu'il neige qu'il fasse beau les gens sont dans les salles en de jouer et, et puis on manque de compétition sur le plan local oui loolu il faut qu'on le dise suñu championnat bi il est trop long ça dure presque une année et les gosses ne jouent pas beaucoup de matchs mm. pour être en jambes on dit techniquement qu'il faut jouer au moins entre trente et quarante matchs dans l'année nous on compétit avec des équipes <laughs> en Afrique qui ont ce genre de compétition

C'est pour ça que je dis, c'est l'importance de solidifier et de renforcer notre championnat local. Et ça, si nous avec les autorités, nous C'est pas moi. Il y a beaucoup de gens, comme, comme je vous dis, qui m'ont interpellé aujourd'hui pour voir que ils sont indignés. Et c'est des gens qui ont la capacité d'aider le Sénégal. Et ça, il faut que nous, nous disions sur le basket. Nous savons que nous On ne va pas se man du ma noppi. Mhm. je vais parler parce que aujourd'hui basket moo ñu boole basket moom ma teg fu ma toog tey waaye man basket moom basket moom moo bind suba dina yëpp et l remercie le basket. Hmm. waaye grâce à Dieu moom mu yóbbu fu ma yóbbu na ma je vais pas aujourd'hui m'asseoir dans salon di déglu des gens qui disent ce qu'ils veulent ci affaire basket bi si c'est logique je suis d'accord mais si c'est illogique. je vais réagir du si manqué respect kenn nag. mais dinaa wax lu mu xalaat suñu basket nekkul ci yoon bu baax et ça il euh, maa ngi ñëwaat si yow léegi d'ailleurs day day tax sax ma introduire li nga xamante ne moom mooy la réaction du patron du basketball sénégalais maître Babacar Ndiaye juste après cette élimination des Lions. ba tey dama kontaan bu pare am déception parce kontaan mooy boo xoolee Sénégal si euh, terrain bi qualifié. ñu ngi am fukki point ak juróom-ñeent ak volet barrage bu baax waaye nag euh, dafa am règlement boo nga xam ne nii mooy règlement FIBA boo nga xam ne nii Mali dafa forfait woon ci poulam bu ko Mali forfait ñu ne dañuy annulé match ci Mali alors que même Mali dafa dóoroon Cap Vert à l'aller ñu def forfait Cap Vert gagné sur le terrain par forfait du plus 20 bon ñu dem ba si biir Cuba ne gën na règlement ne bu fekkee dafa am benn force générale si benn poule bu ñu déterminer le meilleur troisième dañuy annuler match Sénégal yi nga xam ne moom amoon contre Kenya alors que ñun ñëpp xam nañ ne ñun dañoo dóor Kenya aller retour am fa 67 points de plus donc ñun fu ñu perdee ñeenti poñ ak 77 goal average Euh, Mali euh, Cap-Vert dafa perte 3 points ak Gorée Barrage plus 14 donc su loolu lañ lañ perte mais sur le terrain ñun ñooy ne ñun ñooy meilleur la c'est un règlement injuste bon maintenant nag règlement moom xam nga loi moom même la loi même quand elle est euh, applicable dinañ xool aussi ñun est que am nañu jar na def recours devant le tribunal arbitral du sport du basket parce que ça aussi c'est une boo xam ne ça reste Euh, mais daal tey vraiment kontaan naa si comportement équipe bi parce que ñun euh, condition yi ñu def nii bu ñu retiré suñu 4 points ak plus 77 même démb bu ñu dooroon Tunisie duñ qualifié parce que boobaa ba léegi bu ñu enlevé plus 77 Cap-Vert moo ñu gën ko révérage donc dès l'instant où dañu dañuy dindil 4 points 60 plus 77 rek pour ñu qualifié woon dañ doon def 6 6 victoires sur mën naa lañ mën a wax rek mooy ñu continuer liggéey bi xool def bilan bi xool ak entraîneur bi directeur technique bi entraîneur bi liggéey bi baax na kenn mënul wax ne liggéey baax parce que euh, six matchs la joué am quatre victoires ak deux défaites te xam nga ni équipe bi aussi matul parce que góor gi si ñëw Ibrahima Fall Faye aussi dafa blessé donc c' est pas équipe du Sénégal possible soo xoolee même Afro Basket 2021 am na cinq jours yu nga xam ne nii defuñ ko woon cinq ou six nga xool équipe bi mu am quatre xale yu nga xam ne nii U19 lañ jógee Jean-Jacques Boissy voilà Babacar Sané Khalifa Diop ak ak Amar donc c'est une équipe très jeune de vingt temps boo xoolee si tournoi bi on avait l'équipe la plus jeune du tournoi donc nañ continuer liggéey rek Voilà, ce sont les propos euh, du patron euh, du basketball sénégalais maître Babacar Ndiaye euh, mu dellu si waat ci benn recours bu mu bëgg a introduire mais aussi ñëwaat ci liggéey bi ñu war a continuer coach li jaaxal nit ñi mooy cette réglementation parce que dafay dellu waat ci peut-être ñoom combat yu ñu war di porter le Sénégal mais pourquoi pas la zone 2 wala yeneen zone yi cette décision-là depuis le mois de juillet 2022. Okay. la wàcc. ñu wow. ne euh, Mali parce que Mali ñoom pour des problèmes de prime seen sélection nationale dafa dugg ci vestiaire yi. ñu génn. donc automatiquement euh, la tutelle a pris la décision suspendre li nga xamante ne Mali et les gens avaient déjà alerté. Mm. même certains confrères bind nañ si wax nañ si. ñu toog ba heure bi parce que loolu yëpp dafay dugg ci wàllu management bi ak préparation bi euh, parce que ñi ngi wax euh, mais coow li yëpp fenêtre Alexandrie bi bu njëkk bi et les gens avaient alerté moment boobu attention attention à l'Égypte parce qu'il y avait déjà un précédent entre les deux pays ci football bi bu ngeen deful nag dina répercuté wu ci basketball bi mais on dirait que qu'ils n'ont pas vu venir avec toutes les conséquences nag limogeage après Boniface ak yooyu comment on peut à ce à ce moment-là tey dire que dina yóbbu l'affaire ci ci ci tas alors qu'on savait à l'avance que bu fekkee ne tel scénario la Sénégal du dem ça pose problème. bon ça pose problème mais bon pour mu wax ci dina xaw a difficile trop pour man parce que bon xawma les tenants et les aboutissants ak fan la loolu dooree mais li ma mën a li ma ci jàpp rek mooy bon du du dossier boo xam ne taas moo koy réglé je li ma yaakaar du taas moo koy réglé parce que du problème qualification ay kii problème du du mais problème mu règlement bu fekkee ni règlement bu waxoon na ko alerté na ko depuis longtemps léegi ci li ma déglu euh, maître wax wax na ma ni même bu nu gañoon Tunisie du nu qualifié même fekkoon nga ñëw noonu Tunisie. waaw loolu wax na ko léegi donc loolu bu fekkee loolu noonu la ko noonu loolu moo am donc man jeune lu ci bari damay échappé kon ndax dama yaakaaroon ni man ci sama kii yaakaaroon naa ne bu ñu demee bu amee deux victoires laa déggoon bu ñu amee deux et deux victoires dinañu dinañu donc man loolu laa yaakaaroon. d'accord bu ñu nag euh, mu demee nii nag. vraiment am na loo xam ne maîtriser wu ma ko ci trop. waaw te mu ma cee sóobu waaye waaw pour wax ni lii seen jar na mais li ma yaakaar daal li ma xalaat daal foofu daal je crois que daal kii du dossier boo xam ne war naa dem taas taas du ko du ko réglé bu fekkee ne vraiment point règlement la waxoon nañu ko ñoom xamoon nañu ko. depuis le mois de juillet 2022 waaw depuis le mois de xamoon nañu ko. Hmm. donc waroon liggéey ak loolu waroon xalaat ak loolu daal loolu daal laa ci xalaat xaw ma a ndax nag. Hmm. ñoom xamoon nañu ko ou bien xamuñu ko woon vraiment. D'où vient le problème on a, on a problème de gestion parce que règlement bi ñoom xamoon nañu ko depuis le mois de juillet 2022 donc si on avait gagné kenn si wax dara parce qu'on perd maintenant on va commencer à souligner des choses non il faut qu'on arrête ça un match de basket ça se gagne sur le terrain de basket. et on a perdu sur le terrain. on a perdu sur le terrain ah sur le terrain donc tey comme ils disent nañu liggéey liggéey dafa am wax bi dafa bare. dañu war a toog jàkkaarloo ak ñu leen mun jàppale ñu jàppale leen parce que loolu tant que amul on a toujours problème ah, en basket euh, tey pour se baser sur affaire règlement comme dit Maguette TAS ça c'est pas du ressort de la TAS pas du tout duñu am dam ci loolu c'est une perte de temps nañu dellu ci Dakar tranquillement recommence le travail se focaliser ci formation des jeunes mm. centre de formation le football a compris Le football a compris que pour aller de l'avant, il faut former les jeunes Sénégalais. On gagne tout en football aujourd'hui. Man, man, je suis tellement fier. Coûte compétition africaine football, on gagne. Parce qu'on est là en de parler des petits détails. Non, le travail doit se faire au niveau des centres de formation. Il y a des centres de formation. Parce que moi, Mais, Le Sénégal a gagné la première Coupe d'Afrique en 68 à Rabat. ñoom Babacar Gueye ñoom Mbaye euh, Diagne mais tout ça on doit éduquer nos nos jeunes qu'on a des légendes dans ce pays qui ont œuvré pour le basket mais xam nga fii soo soo jàllee rek ñu fàtte la mais man je compte euh, euh, retracer l'histoire du basket sénégalais parce que il est il est beau 68 Rabat ñu ñëw 72 Euh, Doudélé Camara Pierre Sagna euh, Adidas Abdourahmane Ndiaye. Euh, ñoom grand Dagit. dem ci yàlla Babacar Traoré mais bu gaañu daaw dans l'anonymat ñoom ñadda ñoom naaru grand lune qui nous a tous entraînés ñoom ñoom pour ñoom Claude Constantino dem ci yàlla Claude Constantino Sylvestre Lopez mais tout ça c'est des noms que les jeunes aujourd'hui xamuñu parce que nous on croit que le basket a commencé en 2012 avec la nouvelle génération qui n'a absolument rien gagné jusqu'à présent dañuy dara. Mm. ils jouent dans les grands clubs au monde mais mais ils n'ont pas gagné pour le Sénégal mm. te ma ne moi je dis tu es légende dans ton pays Michael Jordan n'est pas une légende au Sénégal c'est une icône les légendes du basket sénégalais c'est les Assane Thiam les Pouye Faye les Serigne Der Abdourahmane Ndiaye les Mathieu Faye les Jolopé c'est ça les légendes du basket sénégalais c'est pas les une base pour enseigner à ces jeunes là que basket dafa mus am Sénégal. dafa mus am euh, euh, Sénégal hier j'ai vu lundi j'ai petit frère Cheikh Fall dans les euh, réseaux aujourd'hui quelqu'un m'a mais mais grand boobu dafa xam basket ma kooku ci kër basket la dëkk mais dinaa dëkk ñëpp ñoo xam basket le Sénégalais connaît le basket comme a mon jeune frère nañu toog waxtaan la solution n'est pas à l'extérieur elle est ici à l'intérieur nu ñu former suñu jeunes yi nañ leen gëmloo que mën nañu qui sont les meilleurs mais quand on n'a pas dans la dans notre ADN c'est difficile parce que moi je vois les joueurs qui qui ont joué moi je le dis man basketteur là mun naa ko wax les gosses que j'ai vu jouer dimanche ils ont joué sans engouement y a que Babacar Sané que vous avez joué ak xol dëgër fit mbëkkante ak gars c'est ça le basket basket du ñëw parce que tu truc tu structures là tu tires des trucs à trois points compétition africaine et non les compétitions FIBA sont différentes de la compétition NBA. les Américains l'ont compris parce qu'ils sont fait part par les Français. Mm-hmm. après ils ont commencé à adopter le jeu des Européens. Mm. ah Kobe Bryant qu'on parle là la jàng basket Italie donc lui il a il a amené le basket européen avec son athléticisme américain il devenu grand tey suñu basket bi. fii la ñu ko Sénégal. Mm. te y a des gens qui sont prêts et capables de le faire. il faut qu'on fasse appel à eux. d'accord alors Abou par rapport ak part de responsabilité parce que président am na lu mu wax mais aussi am na benn part de responsabilité boo xamante ne aussi fédération. la incombé par rapport ak préparation yi euh, campagne bi différentes fenêtres yi surtout man je pense qu'on a raté le coche complètement ci nga xamante ne moom mooy troisième fenêtre bi parce qu'on parle de la dernière mais troisième fenêtre bi moom c'était une catastrophe maintenant il faut ñu situer ku ci nekk sa part de responsabilité pour mun a nag jël un nouveau départ pour lu ñuy espérer cette fois-ci ñu ñu amaat ko waxuñu ne euh, rien ne marche ça c'est vraiment être on peut mm-hmm. am na fu basketball Sénégal nekk parce que dem na ba demi-finale ci afro dernier afro basket bi ci góor ñi mais discipline bu mel ni basketballu Sénégal bu demee ba nga xamante ne les cinq meilleurs bokk ci ñi war a dem coupe du monde ça pose problème war nañu toog waxtaan. parce qu'on doit être beaucoup plus ambitieux que ça n'est-ce pas. effectivement man déjà sama point de vue man élimination bii ñu am nii. euh, ça peut nous servir beaucoup le fait que ñu éliminer ñu ci coupe monde bi parce que saa va pousser maintenant à la réflexion parce que si on avait la chance de se qualifier peut-être du ñu taxaw di xalaat naan léegi on va réfléchir sur quel système on va essayer de faire quoi pour changer li ñu ñu éliminer nii ça va nous permettre maintenant de de s'asseoir et de réfléchir. maintenant mais lu tax defuñu ko en 2019 bi Adidas mu am problème coow. parce que jarul nëbb c'est pas un secret de polichinelle ça n'allait pas entre Abdourahmane Ndiaye Adidas ak le ministre moment boobu Matar Ba hmm. ñu ñu ñu demee ñu yóbbu ko de côté parce que fenêtre boobu période boobu le Sénégal sur douze matchs a réussi hmm. pour se qualifier xam nga boobu mais bi ñu bi ñu demee coupe du monde mais raclé lañ fa jëlee pourquoi bi ñu fa jógee tooguñu waxtaan xool li nga xamante ne doxul ñu jéem ko ñu jéem ko saafara mais on dirait que léegi depuis depuis lors benn éternel genre recommencement lay nekk. mooy li mu la doon wax léegi rek bi suñu paree au moins dina dina servir les acteurs. mooy li ñu la doon rek éternel recommencement boobu au fait il de petits détails yu nekk ci basket bi boo xam ne il faut que ñu révolutionner ko la façon de penser mooy li doyen di wax léegi penser au professionalisme parce que il faut que actuellement ñu réfléchir sur comment aller vers le professionnalisme en allant vers le professionalisme tu règles beaucoup de problèmes management bi ngay wax li li ñuy waxtaan y des détails qui nous ont plombés yooyu yëpp avec le professionnalisme chacun sait où il doit se mettre que ça soit le joueur les dirigeants même les supporters le monde du basket sera organisé te ñun actuellement c'est ça qui nous fait défaut pour man désorganisation bi am il faut que ñu maintenant qu'on pense à un nouveau système bu ñuy établir parce que doyen Maguette mi ngi koy wax les fenêtres FIBA def ñuy def ñuy handicapé surtout en milieu de saison pourquoi pas ne pas réfléchir à un nouveau concept qui qui va nous permettre boo xam ne euh, quand on a besoin de l'équipe locale on a besoin de l'équipe nationale elle est là au niveau du championnat local si on réfléchit à un nouveau système boo xam ne maintenant les joueurs du championnat au fait ils seront motivés comme li may wax nañ wan booy ne Sénégal pays de basket la woon. et t'as pas besoin d'aller loin. non fait. c'est-à-dire photo yi nekk foofu rek ci siège bi ci suuf il suffit que nga génne leen nga teg leen nga leen regarder telle ou telle personne. c'est ça ce qu'elles ont fait pour le basketball sénégalais. c'est ça il yoo xam ne souvent dinañ ñëw Marius Ndiaye xale yi duñ leen reconnaître. donc moo tax ma ne il est temps. c'est le moment parce que on est en train de faire des débats pour dire hey Rwanda ñi ngi liggéey de xool eh, xoolal Sud Soudan fi ñu am xool leen Cap Vert. et qui Rwanda. kan moo fay liggéey c'est-à-dire kan la ñu jox liggéeyu basket Rwanda. c'est un c'est un Sénégalais effectivement. c'est-à-dire ñun on est parti au Rwanda mais nit ñi respect bu. doy bi ñu am ci Cheikh Sarr. mooy li ma lay expliquer on a tout on a la ressource on a les ressources humaines ici on a tout moo ñu manqué ñu organiser wu. Hmm. yokk infrastructure yi parce que tamit quand même on ne peut pas parler de basket et dire qu'au Sénégal on n'a que deux salles. une salle dans l'autre salle équipe nationale la. Ah. mais mais mais Balaye Saly c'est-à-dire bu ñu jëlaatee exemple ci football bi. Mhm. am football bi amoon na ay temps tuuti ñu dem jouer ji à l'extérieur. Mhm. mais quand même ils ont pris des raccourcis. et c'est là où on attend cette fois-ci. moom la lay wax cette cette fédération sénégalaise de de une formule. ci mhm. nu permet maintenant de manager le basketball. de telle sort que yenn couac yi ñuy wax ni yi ñuy souligner non lii mooy couac bi lii mooy couac bi dañ koy te loolu il faut il faut que ñu migrer ci loolu actuellement il est temps moo tax sànq Desagana bi muy wax naan liggéey baa ngi soog a commencé ma ni ko voilà tu as bien fait de dire liggéey baa ngi soog a commencé parce que c' avec l' élimination bon il faut rappeler que ñaari fenêtre la def. Mm-hmm. avec l' élimination ils vont se dire que y a du travail à faire si on avait réussi à se qualifier di am na idée yu bëri duñ duñ ko dégager on allait continuer sur sur cette routine mais le fait que ñu éliminer va réfléchir. on va se dire non on maintenant il faut qu'on puisse prévoir les fenêtres qualificatives parce que loolu mooy am léegi c'est le système mondial il va falloir qu'on mette un nouveau système de management boo xam ne dinañ dinañ mun anticiper loolu te loolu projet moo la koy may d'accord alors euh, euh coach projet boobu naka lañ ko mun a élaborer sur le plan technique parce que le directeur technique national peut-être yow aussi di nga si wax parce que am na benn moment yow yaa fa nekkoon peut-être li ñu si liggéey sa part de responsabilité aussi. Mhm. parce que loolu aussi il faut que ñu ñu ñu ñu wax ko. Euh, par rapport ak sànq euh, je je Lopez mi ngi koy wax. Mhm. des profils qui sont qui sont très intéressants le rôle des directions techniques régionales la la direction technique nationale qui doit chapeauter tout ce travail là ñu def ko à la base. peut-être liggéey servir club yi club yi servir li nga xamante ne moom mooy les différentes sélections nationales ainsi de suite. oui comme tu dis effectivement une direction technique nationale elle doit être sur tous les plans sur les, tous les secteurs du développement et du basket à savoir donc aujourd'hui je pense que nous avons une direction technique nationale qui est constituée c'est vrai que dafa am. au niveau départemental au niveau régional au niveau toujours war war naa am ñoo xam ñoo ko fay représenté ñoo xam war na mën a mais il faut mu am un programme de développement boo xam ne chaque région chaque département moom la koy jox je crois que la direction technique nationale et en train de réfléchir et sur et sur ça sur pour mettre en place surtout des sélections au niveau des jeunes des sélections euh, euh, yoo xam ne dinañ mën a liggéey sur un programme donné par le directeur technique par la direction technique nationale avec des entraîneurs yoo xam ne peut-être c'est des directeurs techniques régionaux mais c'est des directeurs wala techniques départementaux qui vont continuer ce, ce travail là sur un programme déjà élaboré établi par la direction c'est ça qui devait se faire mais souvent la direction technique nationale se heurte à, euh, euh, à des moyens je di que peut-être si même si on a des moyens humains euh, pour euh, pour euh, au niveau de chaque région au niveau de chaque département qu'il y ait quelqu'un qui peut s'occuper du développement et des jeunes mais nous, des fois nous avons des cas des manquements au niveau des moyens financiers ou des, des moyens matériels parce que souvent de gens dans les régions au peuple demander nous voulons travailler, nous n'avons pas suffisamment de, de ballons. Bien que la fédération avait, à un certain moment, avait eu quelques ballons qu'on réparte dans les régions, mais cela ne suffit pas. Il faut avoir suffisamment de ballons, il faut, au niveau des infrastructures euh, euh, euh qui, euh, et Lopez l'a dit, il faut des salles, des salles de basket, parce que, parce que comme il dit, le, et le basket c'est un jeu de salle. il faut il faut il faut il faut il faut il y a beaucoup de choses qui manquent pour que les directions techniques puissent travailler avec vraiment plus d'efficacité. donc nous, nous sommes conscients de cela. Moi, quand j'étais à la DSO Tennis, donc j'étais confronté à ce genre de problème-là. Au niveau des régions, tout le monde demandait, au niveau des parlements, tout le monde demandait les moyens pour se développer. Mais par rapport à la, formation, parce que j'ai avec un technicien, il me dit, euh, amuñu benn genre tronc commun boo xamante ne ñun ñëpp mën nañ ci sukkandiku. non non non non gis nañ. pour former les jeunes. par rapport à formation quoi qu'on dise le basket c'est le basket le indivisible. il n'y a pas un basket qui donc nous avons tous été euh, formés sur le module euh, comment dirais-je euh, du développement du basketball et du, qui tout à l'heure Toto a dit que nous avons hérité euh, et des entraîneurs qui nous ont formés, c'est les mêmes entraîneurs qui nous ont formés et nous aussi, on a transmis ce que ces entraîneurs nous ont donné. Mais coach, euh, entre-temps, la discipline a évolué. Oui. Euh, Quelqu'un comme Gorgui Sidien, après, dina si mën a répondre. dit que nous, ce que l'on fait fii. non écoute écoute dafa déphasé complètement par rapport ak ce qui se passe. non man man je je ne pense pas que dafa déphasé c'est que nag ce que nous faisons parce que y a des fondamentaux de base. que les gens travaillent sur dessus. Le basket a des fondamentaux de base. On va t'apprendre comment tirer, comment, comment, comment Maintenant, pour mieux perfectionner peut-être les joueurs, peut-être il y a d'autres choses qu'il faudrait pour, pour perfectionner ces joueurs-là. Il faut leur amener à un autre type d'entraînement. Et c'est vrai que ça peut-être, nos entraîneurs, certains entraîneurs ont besoin de cela. Mais je vous dis que nos entraîneurs ici, que nous avons ici pas mal de, nos antennes ont fait peut-être des extérieurs ils ont ils, de beaucoup de choses donc je crois que donc nous avons l'expertise c'est vrai que cette expertise là il faut euh, comment dire leur donner plus de rudiments plus de moyens et pour euh, et pour les permettre vraiment le coach un coach comme Cheikh Sarr il est là, c'est un entraîneur qui, mais c'est vrai, il s'est bonifié, mais c'est un entraîneur qui a été formé à l'école sénégalaise. Oui, mais, ouais. mais, mais en temps, il s'est bonifié. Ouais, par, voilà, par ouais. rapport à la formation, à que euh, je Bignou Bougou, euh, non, fait des... non, non, non, je termine. donc, très rapidement. Donc, donc tous nos entraîneurs qui sont là, qui sont bons, je dis que euh, ils, ils, ont eu une formation à l'école sénégalaise, qui ont dit, mais par contre, il leur faut c'est vrai que donc j'ai j'ai parlé de Chassa comme j'ai parlé de de coach Tafa j'ai parlé de Parfait tout ce tout ce non donc, mais moi je parle pas du qui est à Dakar moi je parle du coach qui est à Fongolemi de l'autre coach qui est au Jolof ainsi de suite ainsi est-ce que warul am benn formation boo xamante ne buñ leen ko defalee am am na formation boo xam ni c'est la formation diplômante boo xam ni c'est les entraîneurs on le fait les animateurs initiateurs qu'on qu'on fait il y a un programme bu leen soumettre ñu def ko le même programme qui est le coach qui est à Fongolimbi Kiada suit ce même programme pour avoir le diplôme d'entraîneur animateur initiateur après il y a le diplôme d'entraîneur premier degré donc il y un contenu de formation qui a été euh, élaboré et adopté ce contenu de, de formation là et moom ngeen di dispenser pour tous les partout, entraîneurs sur toute l'étendue du territoire. et puis ça c'est le, le de formation. très rapidement euh, mhm. euh par la moo xam ne FIBA moo koy moo koy ficelé. ko. ñu mhm. ñu def ci su euh, suñu kii ñu euh, ñu xool naka lañ koy dispenser par rapport à aux entraîneurs sénégalais. c'est un contenu vraiment. alors comme uh-huh. ñoo yem. par rapport d'abord la formation des formateurs. façon profil de joueur bi nga xamante ne désormais le basketball moderne moom la ñu soxla euh, parce que bu ñuy xool au début le basketball sénégalais peut-être lu ci liggéey bu ci ëpp ci meneur la doon jógee di dem mais euh, il y quelques années j'ai entendu Boniface qui dit que les paradigmes ont complètement changé il faut une bonne défense mais surtout il faut s'appuyer sur peut-être des ailiers wala euh, peut-être euh, des ailiers forts c'est-à-dire moom dafa en fait dafa revenir sur sa philosophie du ah, du jeu voilà oui maintenant par rapport à à ça ñu ñu cof ko rek parce qu'il nous reste à peine quinze minutes mu mu mu mënuñu ci bañ a wax euh, qu'est-ce qu'il faut moment bi euh, vous avez touché un truc benn sujet bu important parce qu'on parle de la direction technique la direction technique c'est la clé du basket sénégalais waaw léegi et ça demande un temps plein de, de réflexion aujourd'hui malheureusement nous avons pour des raisons que j'ignore notre technique nationale il est aussi entraîneur pour moi c'est difficile de pallier les deux parce que tu vas euh, ignorer quelque chose qui est important, qui est la formation euh, des entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, nos entraîneurs sont bons, mais toute personne a besoin de se recycler. Mmh. Ouais, parce qu'aujourd'hui, le basket a évolué. Bon, la base n'a pas évolué. Hein. Les mm. dribbles, c'est toujours les dribbles, les tirs, c'est toujours les tirs. Maintenant, tu as des entraîneurs qui t'apprennent à tirer beaucoup mieux, avec le coup beaucoup plus droit, des choses comme ça. Mais il y a une femme. Le jeu a évolué euh, dans son développement. Ouais, ça, pour, pour que Guy Hamsilan, il faut que nous renforcer capacité donc la direction technique doit euh, avoir un plan moi je crois que la fédération parfois manque de plan de planification parce que le le euh, prendre les, les entraîneurs ne leen voilà vous avez euh, la possibilité d'aller à l'INSEP en France où Aimé Toupane un Sénégalais est entraîneur de l'équipe nationale de France féminine féminine et, oui. et, il est je parle avec Aimé tout le temps il me dit envoie-moi des coachs comme ça on va travailler avec eux mais moi j'ai comme l'impression et puis on parle honnêtement ici hein, que nos entraîneurs parfois ils se suffisent à eux-mêmes moi je vous donne une anecdote j'étais à l'INSEP à Paris avec Aimé dans, le bureau de Aimé Toupal du coup quelqu'un l'appelle il me dit c'est Popovic Popovic c'est l'entraîneur de San Antonio Spurs il a appelé Aimé Toupal pour demander comment attaquer une zone parce que les Américains n'attaquent pas bien les zones mu ne foofu di warante zone c'est pour vous dire que mm-hmm. ñëpp dañuy yokk yokk seen xel mm-hmm. parce que man lu ma xam ba parce que su waxtaan ak Maguette mën ma yokkal man mën naa ko yokkal. c'est là que le débat se trouve on on doit pouvoir s'asseoir comme des des responsables des adultes et pouvoir parler basket. capacité de nos entraîneurs ça doit être renforcé parce que aujourd'hui euh, je, je trouve inconcevable man Joe Lopez qu'un entraîneur en équipe nationale mais pas en troisième degré loolu man la comme je dis c'est ma philosophie mhm. comme Boniface t'a donné la philosophie de comment il peut attaquer un euh, match parce que ça ça c'est une mhm. chaque individu a sa philosophie de basket mais à, à un certain niveau il faut avoir des gens qui ont quand même un certain niveau d'intellectuel pour pouvoir comprendre la psychologie du joueur aujourd'hui parce que quand tu as des joueurs professionnels qui viennent en équipe nationale et qui gagnent autant d'argent qu'ils Ah, ils vont pas s'attarder sur les petits détails que nous les Sénégalais <laughs> euh, parfois ont. Oui, parce que on a des petits problèmes de 10 <laughs> 000 francs, 15 000 francs, ça, c'est pas les jeux professionnels. Ils n'ont pas ce problème-là. Et il faut, il faut des gens qui ne sont pas impressionnés par ces gosses pour pouvoir leur parler d'une manière autoritaire que affaiblir le demain. Mais parce que des femmes y ont, et nous, je, je, crois que on a parfois on oublie. Mais ce que dit mon jeune frère là, notre défaite va améliorer beaucoup de choses parce que les gens vont parler vous allez voir de plus en plus des gens compétents vont venir dugg ci télé yi euh, de télévision yi wax te da nga war a déglu man man nekk mu ci ay critiques mm. ay dàq kii di jëlal kii man ça ça m'intéresse pas on peut mettre un aveugle je rien contre les aveugles euh, président fédération un muet su munee joxe euh, des injonctions claires on le suit mais on le suit dans la logique mais aujourd'hui ce que je vois en tant que responsable du basket un acteur du basket sénégalais je suis un acteur du basket sénégalais parce que je forme des jeunes les Babacar Sané si ñu ko formé à Bokk c'est Babacar Sané c'est Modou Thiam je vous dis y a des noms aujourd'hui vous allez les entendre vous allez mais ils viennent d'où ces gosses là ay Sud la ñu jógee Sud NBA Academy vont se retrouver dans les grandes universités y a Ibu Badji ah, Ibu Badji Banco. Mm -hmm, Banco qui joue dans la NBA. Oui. on ne parle même pas de lui. Mm Portland. Portland mu ngi Sud c'est un vrai produit du Sud. donc il y a des institutions comme Sud aujourd'hui dont je suis le président je suis en train de mettre Sud en avant mais on est en train un travail dans l'anonymat D'accord. Et on espère qu'il y aura d'autres structures aussi qui sont en train de travailler dans ce sens. Mais au niveau de la direction technique, bala mais nous avons quelques secondes. Euh, euh, coach, lu tax des personnes ressources, comme par exemple, Moment bi euh, coach Abdurrahman Ndiaye, il est là. C'est-à-dire mm -hmm. quelques personnes qui ont fait le haut niveau. Le tard, nous les nous boole leen ci li nga xamante ne moom mooy cette gestion là nga xamante ne mun nañu planifier mun nañu def loo xamante ne à long moyen et court terme luy war a jëriñ li nga xamante ne moom mooy basketball bi balaa ñuy wax ay problème mu présidence maître Babacar Ndiaye war na fi nekk waru fi nekk mais loo xamante ne dafay amal njëriñ la basketball. waaw moi je di que loolu que c'est une bonne chose. en quelques secondes moi moi di dis loolu lu ñu war a def la. je dis mais loolu mënu leen ko woon def. non non war na ko war na ko mën a def sax te te da nga def. moi je dirais peut-être dañu def à chaque fois peut-être kii la qu'à chaque fois qu'il y avait benn ki de formation d'entraîneur fu ñu war a waxtaanee il y a des anciens ak yoo xam ne da leen daa ñëw te loolu la lan la doxee c'est c'est vrai qu'en certain moment nag y a eu quelques yoo tax peut-être certains entraîneurs yoo xam ne dañoo xaw toog jàpp seen njàmbur. et ce qui ah mais loolu loolu moom lu ñu war a def la. ak euh, quelqu'un comme je sais pas. Mame Maty Meng war nga def une sélection féminine. te ne serait-ce que pour je sais pas pour des conseils wala yooyu muy ñëw des fois toog waxtaan ak ay sœuram c'est-à-dire quelqu'un boo xamante ne dañ ko nommé euh, FIBA Olufem. Mhm. mais kooku est-ce que war nañu toog euh, di wax ci wax ay équipe nationale waxu basketball féminin te te duñ ko si boole. ce serait l'idéal. mais def sax c'est l'idéal ñi am yooyu. Euh, comme li ngay wax ko xam ne Hall of Fame la. ñëw am na lu mu def ci basket sénégalais cinq fois champion d'Afrique. voilà c'est pas c'est pas n'importe qui. vraiment je je je. c'est dommage que expérience boobu je sens ces derniers temps ces derniers temps je sens que mi ngi nekk ci mm. milieu basket bi parce que am na benn période dégguñu ko woon. Mm. mais soo xoolee depuis année dernière on la voit maintenant dans le milieu elle vient au stade. de temps en temps elle elle day ñëw ci finale yi y a des cérémonies de basket di ci nekk peut-être bien de début la pour mu egsi on sait pas on ne sait pas encore ndax on l'a contacté ou pas mais ce serait l'idéal d'avoir ce genre de personnalité autour du basket parce que ñooñu am na benn image bu ñuy véhiculer ah, boo xam ne hmm. xale yi bu ñu ko gisee au fait daf leen di daf leen di dafay susciter benn engouement si ñoom loolu la ñuy soxla quoi parce ñëpp basket nañ ñëpp nekk nañ ay légende mais ku ci nekk am na loo mun a apporter la jeune génération et euh, l'esprit de management bi war a am ci basket bi ku ci nekk am na loo mun a donc loolu ci base boobu la ñu war a liggéeyee ku ci nekk ñu xool loo ñu mun apporter ñu bool nga ñëw andi sa pierre à l'édifice comme ni ko ñëpp di defee pour que le basket puisse aller de l'avant loolu rek rek rek la ñu soxla loolu moom ce serait l'idéal maintenant on ne sait pas si des contacts ont lieu on ne sait pas si ils sont pas contactés peut-être ñoom ils seront en mesure de répondre ndax euh, on les a contactés pour pour quelconque benn affaire ci biir bi ci biir gestion du basket bi mais loolu suñ ko mënoon am ce serait très bien surtout pour les jeunes qui voient d'accord maintenant par rapport à la à la formation. Mhm. lan nga xalaat ne moom moo gën a idoine ñu ñu ñu def ko pour permettre cette fois-ci basket bi fi mu nekkoon mu delluwaat fa et pourquoi pas titiller les grandes les les, les grandes nations. d'abord je vais revenir sur le terme que j'ai utilisé tout à l'heure susciter engouement ci jeunes yi d'abord. jeune bi balaa nga koy jàngal basket balaa nga koy former sur une période bien déterminée cinq ans six ans pour mu nekk à l'élite da ngay susciter engouement am ba pare ci basket bi mu bëgg basket bi loolu il te faut des personnes yoo xam c'est c'est pas pour rien ngay gis ay camp ay ay au niveau de l'étranger ñu ñëw fi Sénégal di def ay ateliers yoo xam ne du nekk basket kese. Mm-hmm. parfois da ngay ñëw gis ñu def atelier boo xam ne dañuy regrouper jeunes yi. benn moniteur toog ak ñoom foofu nga jàpp ne moniteur la fekk ci la il est spécialisé dans tel domaine ci basket bi muy wax ak ñoom ci loolu. donc loolu ñu tamit il faut ñu am ñu jéem a cultiver loolu au niveau local fii nga xam ne jeune bi dangay ngay susciter loolu ci moom ba pare. Mhm, mhm. après nga mun soog a teg nag un programme de formation boo xam ne booy bi da koy dérouler. programme de formation bi nag dafa am lu muy laaj ressources humaines de qualité. Mhm. ak infrastructure. ñaari point yooyu c'est essentiel dans le processus de formation d'un jeune suñ ko amul je ne vais pas dire échec lay doon mais on va traîner on va traîner parce que actuellement on a besoin on a besoin de ressources ni comme ni nga ko waxee ci équipe nationale football bi bi ñu demee ba gis ne il faut se plonger sur les jeunes pour préparer l'avenir dañoo song sëgg maintenant foofu ya différentes parties yoo xam ne ñooy ñëw pour intégrer ci y a le privé il la fédération qui s'implique il y a l'État qui vient il y a des partenaires qui parce que ay branches yu bëri lay nekk quoi nga xam ne la day nekk benn mélange qui va nous permettre de poser une bonne base sur la formation du basketteur sénégalais te loolu moo ñuy mën a tax en cinq ans on aura des Babacar Sané on aura des Ibou parce que équipe nationale bi soo xoolee ay booy lañ de. Mhm. te ñoom ñëpp ci. formation la ñu jaar. Ibou Dianko Badji Amar Silla. Babacar Sané Jean-Jacques Boissy ñoom ñëpp ci formation la jaar ils sont à l'équipe nationale. c'est une mais il faut que ñu pérenniser ko songu travail à la base bi loolu moo ñuy permettre actuellement pour revenir ci mhm. niveau bi ñu amoon. d'accord alors coach dernière question bi ak dernier tour de table bi lay lay lay nekk ñi ngi wax SIDS. c'est bien mm. on applaudit oui. euh, mais club yenn traditionnel yi mm. foofu foofu ñu xaar leen aussi ci li nga xamante ne mm. moom mooy cette formation là formation à la base petite catégorie bi jëm ak ñoom fi nga xamante ne moom mooy si kaw mun na servir sax de de de réservoir ci ci ci anam yooyu parce que on parle aussi de la fédération mais aussi acteur bu ci nekk composante bu ci nekk da nga am sa part de responsabilité ñoom aussi naka la ñu mun a préparer woo pour pour pour pour def liggéey boobu. les clubs. oui. bon moi je dis club yi dafa am lu ko club yi da ko bàyyi parce que ñun ñëpp ci club yi la ñu doon defee formation il y a des équipes des yoo xam ne ku nga xam ne ni dana yoroon école basket yore catégorie yëpp mini basket ba jëm ci et danoon danoon jàngal basket mu nga dem jaraaf nga dem suma dagaa nga dem jaraaf GIA di foo dem amoon nañu petit bopp tout ça foo demoon y a des petites catégories yu doon kii depuis un certain temps on s'est rendu compte que peut club traditionnel yooyu amatul c'est des écoles de basket des centres de basket moo am et puis centre basket yi nu ngi ko créer ça pose problème yenn centre de basket ak kan moo fi entraîné ki fi entraîné est-ce que am na des diplômes de qualification pour yore centre basket yooyu mm, loolu man je dis que en certain temps doon na wax ne nanu jàngale est-ce que mën nañu entraîner que c'est la petite catégorie que suñuy suñ suñuy doom lañ aussi il ñu xool ci ñan la teg seeni loxo centre basket yooyu ñu commencé proliférer wu du fàttali parce que ñoom aussi ña fa doon jàngale ce qui les intéressait peut woo xale yi nañu joxe dara nañu jox ñoom ñu yore leen mais yenn centre yi te war na nañoo xool nu leen jàng donc les clubs traditionnels yi nga xam ne noonu kii formé tunu centre basket yi xale yi dem centre basket yi club yi ñoom dañuy toog rek xool euh, bu kii ñu lu ñu mën ñu recruter seen équipe A seen équipe A donc on a ce problème là mais nag maintenant le problème qui se en plus de ça les clubs forment plus ou bien euh, les centres ñoo ngi formé depuis mais formation du kii wax na ko léegi da ngay entraîner defar xale bi mais da am compétition xale bi au niveau de kii mais da ngay am compétition mais nous n'avons pas de compétition au niveau des jeunes. mais national 2 sax. Euh, oh, non non non non non dama ne au niveau de. avec coach Tafa. non au niveau des des jeunes amul. amuñu kii. championnat amuñu championnat. d'accord championnat euh, am na mais championnat bi fa am les gens jouent am na au niveau mais duñu jouer match yu bari duñu jouer. ils s'entraînent toute l'année ils jouent trois fois dix fois dix matchs. même pas non même pas donc à Dakar donc à Dakar c'est sûr que les petites catégories jouent pas duñu jouer ay dix matchs donc loolu ça pose problème moi je dis formation. boo formé nit entre nit il mu am compétition et c' est dans la compétition lanu la nga mën a performant donc tout à l'heure kii kii wax na ko même au niveau du du championnat championnat bi ñoo ngi joué ñoo ngi compétir mais aussi ñaata nombre de matchs la la ñuy am par an et puis matchs yi ñu koy amee même si si si si on dit que on a trente matchs et c' bon mais trente matchs yi bu fekkee amoo ko dans la densité ah du am njëriñ. Mhm. match yi da koy am mais bu fekkee da ngay am 30 match nga joué pendant. kii joué tey toogaat joué toogaat toogaat kooku da du yokk performance kii bi en euh, euh, euh, joueur bi. donc loolu yëpp ci formation bi ci la bokk. il faut que ñu xoolaat centre yi yokkaat parce que effectivement on a on a cible. UJ ak NBA académie mais am na on a la possibilité d' avoir d' autres centres yoo xam ni am na centres yoo xam ne kii y' a des écoles am na école basket yoo xam ne vraiment ñoom ñoo ngi liggéey dans les régions. surtout ça dans les dans régions. on parle de de de de site yooyu. mais aussi il faut qu'on parle de d' écoles yoo xamante ni ñu ngi fii. di liggéey quelqu'un comme Anne Marie Diop. waaw waaw am moi j'ai fait un reportage. avec elle elle euh, elle énormément. ci li nga xamante ne am na ah. j'ai été formé là. basket ñoom ñoo donc vraiment même au niveau des des régions. quand comme Saint-Louis. Saint-Louis a des écoles de basket des centres de formation yoo xam ne mm-hmm. qui forment beaucoup de jeunes am de beaucoup de joueurs donc am dans les régions Saint-Louis mais à Dakar am certes mais il faut que ñu gën ko organiser. d'accord il faut que les clubs traditionnels là. ñoom ñu ñu impliqué wu davantage mais aujourd'hui c'est qu'on note am na club traditionnel ñoo ngi fi am na yeneen club yoo xam ne ñoo ngi ñëwaat mais club yooyu boo dee xool ay équipes seniors rek la ñu am amuñu amuñu petite catégorie damuñu dara ça ça les intéresse pas c' est les équipes seniors qui les intéressent ce qui ce qui n' est pas normal ah donc dafa war a bokk ci seen cahier de charge aussi donc voilà li nga xamante ne mooy euh, euh, formation petite catégorie bi parce que loolu aussi da ci da daf ci am solo hmm. euh, Joseph Lopez <laughs> kàddu gi moo jigi parce que waxtu wi hmm. jeex na mais message bi ngay lancé parce que déjà on parle d'un objectif 2025 mais à ce rythme rythme là ak ni ñuy liggéeyee est-ce que 2025 c'est vrai euh, le trophée ça ne se décrète pas mais aussi da nga koy da koy liggéey de. Hmm. Euh, te y a des nations émergentes comme le Sud-Soudan euh, et y a, y a, y a le Cap-Vert qui nous a posé problème. ci ouais. de classement bi dernier bi ak ñeneen ak ñeneen. tout à euh, le travail vient de commencer aujourd'hui on doit identifier des jeunes produits locaux. une une dizaine une quinzaine sélectionnés présélectionnés présélectionnés international et avoir un travail avec eux euh, deux fois dans la semaine ñu dem Marius Ndiaye avec euh, un programme bien détaillé de lu ñu war a def travail individuel rebond euh, passe tir travail collectif attaque défense commencer à se mettre dans dans le bain d'un basketteur transition offense défense défense offense. Euh, Et ça, ça vient avec un travail qui est mis en place par le sélectionneur. Mais il doit avoir un travail qui doit donner aux entraîneurs comme Pabi ou bien euh, ses assistants pour une DEFCO. Quand il y a des trêves de vacances, regrouper ces gosses pour cinq 6 jours, nous donnons stage de snaps, deux fois, par jour, nous entraîner, ça les permet de se connaître. Parce que Ngagne Tessagana, il a parlé de stage oui. externe, peut-être, pourquoi pas durant, oui, durant les que, vacances il faut que comme dit mon jeune frère il faut qu'on assure la base locale. Mmh. la base locale il faut mu am. l'ossature de notre équipe nationale aujourd'hui doit être peut-être la moitié doit être euh, base locale comme ça si on a des compétitions on va pas dire ah diw ñëwul. ñëwul kon on peut pas gagner ça je peux pas entendre ce discours là ça moom c'est pas euh, quelque chose que man en tant waaw parce que maa ngi fi di parce que tous les jours après on me dit yow baaxuloo parce que su waajale ñëw ñëwulee du ñu gagné ça je peux pas l'accepter en tant que joueur. kon discours ñoom Gorgui Sy Dieng Ibrahima Faye ñëwuñu. loolu ça ça ça n'engage que man man dugg ci man dugg ci waxtaan yooyu. parce que avec eux ou sans eux on n'a pas gagné donc c'est pas aujourd'hui qu'on dit que ñoom ñoo ñëw la tax on n'a pas gagné il faut pas qu'on rentre dans évidemment parce que on a parlé de la balle qui va commencer le 11 mars. Ouais. Waaw. Donc je lance un salut à mon jeune frère ami Amadou Gallo. Euh, ça départ qui est un Sénégalais qui est à la tête d'une ligue de la NBA. Et je crois que il pourrait apporter apporter pas mal de choses à notre basketball mmh. également. Mais je voulais lancer un appel que les matchs vont démarrer le 11, du 11 au 21. Et les gens qui sont possibilité d'aller acheter des billets et de ne pas s'attendre à ce qu'on nous donne des billets complémentaires. Parce que si ça, on est dans une mentalité que mêlem, mêlem. Non, non, et il faut, il des billets. Hein, Je suis jouer, mm. que tous les Sénégalais ouais. se déplacent, mm. ay à Dakar Arena, mais, et puis li nga xamante ne moom mooy sunu club. mais beneen support bi aussi dañ koy jagleel koo xamante ne doomu Sénégal bu baax sax doomu <laughs> Ah, ah, ah, à à à à président kon kon kon doomu Kaolack la. Kan Gallo. Ouais. ah oui c'est, c'est, ah oui. d'accord oui bien sûr. Euh, donc euh, sama mbokk Saalum Saalum la kon. ah ñu ñu dem aussi. <laughs> naa ko ko wax parce que à la tête. c'est un Sénégalais un digne fils. Hmm. boo xamante ne reconnaître nañ ko mu am liggéey bu am solo bu muy def noon na conférence du Sahara bi mu yóbbu ko feneen hmm. mais il a toujours hmm. décidé que fii ci dëkkam la ñuy commencer dem buñ pare Égypte après yóbbu ko fi nga xamante ne moom mooy Rwanda parce que les Rwandais eux ils ont ils compris li nga xamante ne euh, moom mooy économie du sport moo tax lu ci bëri léegi organisation tournoi yu bëri foofu lañ koy defee ci seen capitale ak Kigali donc c'est du 11 au 21 mars avec la participation d'un club sénégalais. Mm. AS Douane la ñu ñëw nag euh, supporter leen. Mm. pour pousser leen cette fois-ci li ñu defoon ci première édition bi pourquoi pas ñu rééditer ko. Mm. Euh, qualifié wu romb li nga xam te ne moom mooy quart de finale en tout cas c'est c'est tout ce qu'on tout ce espère. alors très rapidement ci tënk rek fan ngeen ci organisation BAL bi. ma BAL bi ils sont prêts pour démarrer bon ngi réunion yu métti temps yi. tey waxtaan ak. Amadou mais dafa busy fu mu nekk. d'accord waaw mais ren yan innovation ngeen nar a andi très rapidement. waaw vous allez na nga ñëw start comme ça nga seet ko. non mais bien sûr ñun moom dañuy ñëw. gratuité dédié ah, gratuitement <laughs> yow sa boss mën nañ ko waxtaan mais ñii dañuy fay. <laughs> d'accord merci merci merci beaucoup Jo Lopez dafa amoon loo bëgg a yokk. très rapidement waaw dama bëggoon wax euh, que tous derrière les deux fils du Sénégal Amadou Gallo Fall bien sûr et Pabi Gueye. qui qui va. ànd la Antoine c'est un de mes frères et je maa ngi koy maa ngi koy nuyu au passage et e je le supporte à cent pour cent moom moom moom le supporte à à à cent pour cent coach maa ngi ñëw si yow pour pour pour nga ñëwaale si ce mot de la fin euh, mais j'aimerais aussi nuyu sa sa sœurs yi parce que ce sont des icônes aussi du basketball sénégalais du ñu toog fii euh, ñoom ñu euh, euh, comme sànq ni ma ko waxee ci Mame Maty mais avant Mame Maty mm, ñu nekk beneen génération Christiane Marie mais on on aimerait bien les recevoir aussi ci sunuy plateau xam naa ne est un peu sensible mais on aimerait quand même euh, recevoir euh, ces ces ces personnes là qui ont marqué le basketball euh, sénégalais comme les sœurs Lopez il y a les sœurs Pouy et autres wan sénégalais yi ne am nañ ay digne fils wala fii surtout lu ci mel ni mois de mars dañ ci nekk moo tax ma ne la nga nuyul ma leen et je serai très honoré très fier de les de les recevoir sur mon plateau <laughs> D'accord. Parce qu'elle va dire non. Elle, va dire non. Mais en tout cas, nous, je serai très honorée de les, de, je de adore recevoir toutes, sûrement. ñun tam ñu ngi leen di nuyu ah, Abou euh, kàddu gu mujj gi ak message bi ngay bi ngay euh, bi ngay lancé euh, toutes les composantes parce que bu ñu jël benn baaraamu tuuma rek dut ko keneen kenn mais c'est la responsabilité de toutes les composantes ñu joxante loxo pour permettre basketball bi fi mu nekkoon mu delluwaat fa. effectivement kàddu ba mujj bi. ànd sëgg liggéey mooy tax mooy tax yenn yi ñu mun ko régler. Mhm. parce que bu ñu sëggee di liggéey dañuy oublier les problèmes yi am. Mhm. donc liggéey bi nag mooy comme li mu wax dafa war a jàll à la base d'abord dès qu'on démarre le à la base. on peut espérer avoir les fruits yi nga xam ne au bout de quelques euh, basket bi dafay développé wu yow dañuy étonné wu mais loolu soo gisee c'est c'est un travail qui s'est fait à, en amont donc loolu laay ñaax euh, la famille du basketball képp ku ci nekk pàcc bi nga nekk pàcc bi nga yore nga sëgg ci nga liggéey ci parce que li nga wax nii ak li ñu dal nii ci élimination pour qualification coupe du monde bi tax na léegi tout le monde va se pour dire il est temps ñu liggéey. donc liggéey boobu laay ñaax tout le temps parce que domaine bi ngay gérer boo ko assuré travail à la chaîne bi day continuer te basket bi loolu la soxla fi mu nekk nii un travail à la chaîne boo xam ne domaine bu ci nekk il faut nit yi sëgg ci liggéey ci innover ci surtout. innové mm-hmm. les choses vont aller bien incha allah. merci beaucoup kaddu ah, di nuyu di remercier encore sama euh, suñu ñaari légendes yi fi nekkoon. Mm-hmm. parce que vraiment vraiment vraiment génne nañ fi loo xam ne jàngat la jàngat la mm-hmm. surtout doyen. ak expérience bi mu amoon ci milieu de basket bi am na yu bëri yu mu ci soulevé. de même que Joe Lopez am na yu bëri yu mu wax am na des idées de solutions yoo xam ne si on arrive à l'appliquer vraiment on peut s'en sortir parce que. il est dans le milieu. Mm -hmm. euh, il, il a pratiqué il est resté dans le milieu et en même temps il gère une grande structure de basketball à Thiès donc vraiment xalaatam servir nañu si plateau bi et j'espère que dina servir ñu bari euh, dans le milieu du basket donc maa ngi leen di remercier bu baax man sax jàng naa ci lu bëri <laughs> génn naa ci ay idées yu bëri dama ma dans ma tête d'accord par rapport ak site bi vraiment loolu lu positif la vraiment <laughs> merci beaucoup macha allah Abou donc on se retrouve euh, le 11 incha allah a ah, Dakar Arena du 11 au 21 pas le 11 seulement non du 11 au 21 voilà on va on va suivre incha allah euh, coach yow moom c'est toujours un plaisir hein de vous de vous recevoir kaddu gu mujj bi nekk ak message bi à l'endroit des Sénégalais ki nous suivent. waaw d'abord pour wax leen ni waaw kontaan naa ci et ensuite di remercier ñi ma bokkal plateau bi. Mm-hmm. donc abu Abou Abou Seye xam naa ko baax xale bu xaral ci basket ci li muy def tamit bëgg na ko donc di ko wax rek mu gën a góor góorgóorlu. parce que li mu def. parce que li muy liggéey bi mu liggéey ci développement basket ci la bokk. Mm-hmm. parce que li buy feeñal liggéey nit ñi di ko wone loolu nit ñi dañ ci mën a kii développer basket bi da ci war a sukkandiku bon Toto xam naa ko baax a baax. ku am ah, xarañ waaw moo tax ma ko tutu donc xam naa ko baax a baax ku am xarañ ci basket. la waxtu bi moo ñu xoj mais tutu bi fu mu jógee. Ah. <laughs> donc donc parce que parce que pourquoi ma ma ma kii ko parce que danoo bokk même formation même école yu ñu jàngee basket. la Jeanne d'Arc de Dakar. Jeanne d'Arc Dakar bu dëgg la jaar naa fa mais ñu am entraîneur boo xam ne moo ñu boole jàngoon ñu basket. Mm-hmm. muy Mamadou Sow que je salue. bon vraiment muy ñoom ñoom muy ñu koy wooyee Paso donc mu xam ne man lu nekk ci manti basket moo ko ci def lu ci bari. donc waaw moo xam ni ko amoon xale ne pour pour wax la Sénégal dafay yàgg am ay entraîneurs yoo xam ni danoo xarañ ci lii def na ko. muy ñoom saw ñoom business ñoom kii donc jusqu'à présent ñooñu def nañ ci loo xam ni. Mm-hmm. du dañ mukk mm-hmm. te am na héritage baa ngi fi. héritage baa ngi fi entreprenariat yaa ngi fi ñor dañu coordonné liggéey maintenant li ci des nag mooy kii wax na ko léegi fi mu toll nii il faut que ñu woo ñëpp ñu nekk benn. moi je dis que parce que wax ni kii deful lii kii def na lii am na manquement partout mais nag l' essentiel retrouver autour de l' essentiel. on peut mhm. fii rek ay idée day ñëw ndegam fii rek lañ toog nii. ay idée ñu wax ko ci ñoo xam loo xam mën naa développer suñu basket wutama laa nag boo yokkoon plateau bi ak ñeneen ñeneen ñu bokk ci idée yi idée gën a baax donc c'est ce que je wala je demande merci beaucoup mm-hmm. la balle maa ngi wax aussi ñu xam ni douane mooy dem mais c'est le mm-hmm. Sénégal qui joue absolument donc man de je di que aujourd'hui wax naa ko sama waa équipe di ko naa leen ni attention c'est la douane qui qui qui représente le Sénégal mais le DUC aussi bokk na ci na ci ñëpp bokk na ci équipe Sénégal yëpp boo ko jàppale di war na duc noonu mënoon def yóbbu ay supporteurs am bu supporteurs yi mën a dem tamit dem supporteurs yi di war ko def te yaakaar naa ni dinañ ko dinañ ko def. donc donc vraiment daal ñëpp ñoo ngi jàppale diwaan. Mm-hmm. ñëpp jàpp ci parce que ndamu diwaan ndamu basketball Sénégal donc loolu mm-hmm. aujourd'hui peut am na lu. qualifié wu ñu fële ba ni ñuy wax ne ne nanu ñëpp jàpp douane na ko nu rattrapé ko ah pour douane qualifié merci beaucoup merci beaucoup coach en tout cas ça a été un plaisir de te recevoir sur le plateau Joseph Lopez euh, merci beaucoup merci de votre disponibilité Abou yow moom ci kër gi nga bokk ah, yow moom duma la merci beaucoup de votre disponibilité merci aussi à vous chers téléspectateurs plaisir euh, de vous servir grand merci à Penda ci wàllu réalisation bi Pape Diouf ci son bi l'international aussi euh, ba euh, Mohamed Ndour Babou on le retrouve inchallah dimanche sur le plateau de Sport sur 7 donc on vous donne rendez-vous inchallah ak ay plateau yoo xamante ne dañuy dellu siwaat ndax ñi ci mois de mars nag sànq maa ngi koy wax ñu jagleel ñu ko sunu ak ak sunu yelleef dinañ gën a wane jigéen ñi ci couloir bu ci nekk incha allahu rabbi sans compter yeneen rendez-vous yi nga xam ne à chaque fois dañ ciy ñëw ci biir euh, semaine bi di souhaiter bonne chance au lionceau ndax demain dañuy jouer ce sera à 14 heure locale ak ñi nga xamante ne euh, ñoom ñooy euh, waa Bénin ñu leen di ñaanal ñu qualifié wu suñu demee demi-finale dañuy composté waale en même temps seen ticket euh, pour la coupe du monde qui va se dérouler en Indonésie sera au mois de juin euh, ci at mi ñu nekk di atum 2023 donc bonne chance aux Lionceaux bonne chance aussi à Malick Daf leur sélectionneur merci beaucoup et surtout passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes jërë ngeen jëf